ahousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateur MKTV ñoo ngi nuyoo fii ci Touba Adjamé Côte d'Ivoire eh, seen mbokkum taalibe Xaadim Thiam porte parole daaira bi waaye ñu jiital ci nuyoo bi Serigne Bara Fall mi nga xam ne mooy jëwrinu daaira Adjamé fii ñu toog tey waaye di jiital ci nuyoo bi Serigne naa Mbacke mi nga xam ne mooy suñu imaam ak jëwrin yi ànd ak moom ci liggéey bi yëpp tey jii nag mu mel ni dañuy bañ a guddal kàddu yi tey jii jëwriñ ñoo fi ñëwoon mu mel sëriñ Abdou Lahad Bousso bokk ci ñi nga xamante ni ñoo yor liggéeyu Muxaddamatul Xidma xam ngeen ni ku gis seen xar kanam yi xàmme leen ci liggéey bu am solo boobu ñu def ci jumaa ji yàlla dogal nag seen xel nekk ci topp tànki sëriñ bi nga xamante ni keroog biñ ko jëlee dugal ko ci bato bi fas yéene koo sànki fépp fi nga xamante ni jaar nañ fa ba fii ci Côte d'Ivoire doon nañ ko topp dëkk biñ mujjee jóge nekk ci euh, Togo tey ji nag ñuy agsi fii ci Côte d'Ivoire te buñ fi jógee dañuy dem gine kon nag jeexantalu sëriñ bi la ñuy topp waaye xam ngeen ni seen jëmm yi bu ngeen ko xàmmee suñ ñëwee seen dalwaay mooy fii néegu yàlla ndax fee ca jumaay Tuubaa moom lañuy ñuy saytu kon nag bi ñu fi ñëwee yàlla dogal ñu war a jël kàddu gi jébbal ko ki nga xamante ni lii di jàkka ji liggéey bu am solo bi nii ngeen ko gisee nii ñiñ ko dénk seen loxo ndax sëñ Bara bi mu ñëwee ci bopp liggéey bi wuutu mag ñi fi nekkoon dafa jël liggéey bi dénk ko ki ñuy wax sëriñ Demba fay ak sëriñ Mamour Tall kon nag comme ci mbiru jàkka ji lañ nekk fa yéene cee waxtaan bala ñuy sori dañuy jël kàddu gi jox ko sëriñ Mamour taal mu am ay leer yu mu ci def après ñu daal di continuer liggéey. asalaamaaleykum wa taala wa noo ngi leen di nuyu. te di leen siyaare. te di leen baalu xaq di leen di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbakke yàlla yàggal ko fi te wéral ko. di ko ñaanali sëriñ Modou Mbenda sëriñ Amdi Modou Mbenda. yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanali Cheikh Abo Al Baraka ak mboolem ñi nga xam ni si ne ñoo nekk ci buntu kër Serigne Touba yi di nuyu tey siyaare Serigne Cheikhouna Mbacké al imam ak mboolem ñi nga xam ne si nag moom la àndal tey jii ñu nekk fii muy Serigne Saliou Mbacké ak ma Mafari Ndiaye ak Ba Issa al imam ak ni Touba Adjamé Serigne Bara Fall di nuyu bu baax it sëriñ Abdou Lahad Bousso ak mboolem ñi nga xam ni si moom la àndal tey jii ñëwoon fii ci Touba Côte ñëw fii ci Touba Adjamé di xeñtu tànk yi nga xam ne si moom la ku tedd ga sëriñ Touba Mbakke buñ koy jëlee di ko yóbbu ci géej gi jaaroon fi eh, tànk yooyu mu ñëw di ko nemmiku. Euh, ku leen gis xam ne siine it wax dëgg yàlla ku ne xam na ne am na liggéey bu am solo boo xam ne si kilifa yi dénk nañ leen ko muy liggéey bi nga xam ne si moom la ñuy liggéey ci jumaay Touba di ko saytu te lépp loo xam ne si jëm na ca jumaa ja ak la ca war ñu yor ko euh, noo ngi sant bu baax ci laaj bi nga xam ne si laaj ngeen ko tam jëm ci kër sëriñ Touba gi nga xam ne siine ne fi ngeen ñëw tey toog fi. waaw lii nga xam ne siine nag mooy liggéey bi ngeen fi gis muy liggéey bu bees bi yàlla dafa dogal jamono yi nga xam ne si ne corona bi agsi na eh, ñu toogoon fii daan na kat wax dëgg yàlla kër sëriñ Touba gi war nañ koo salalaat meneen mbubb mbubb moo xam ne siine ne dana méngoo ak boroom ñu daje fee keroog bi ñu fiy dajee ñoo ngi fi dajale lu toll ci soixante-sept mille cinq cent ñu ne nag léegi dañoo bëgg ñu am lu mat ñeent fukki taalibi ak juróom taaliba bu ci nekk joxe ñaar fukki junni bu ko defee ñu doog a tàmbali liggéey bi yàlla dogal na bañ defee noonu it laata ñu koo tàmbali euh, lim ba nga xam ne si ne moom la waxoon muy juróomi million yàlla dogal na loola laata ñu koo tàmbali loola romb na ko euh, bañ defee noonu bañ tàmbali liggéey bi ñu daan na nag mboolem buntu këri Serigne Touba yi nga xam ne si ne ñoo nekk ci dëkk bi te it ëmb yoonu murit ku ci nekk dañ lay sàkkal bis boo xam ne si ne da nga fiy ñëw ànd ak sa mbooloo woote fi bu ko defee ëddee ji ñuy dajale ñu ñu def ko ci liggéey bi tàmbalee ko ci buntu bi yoon wi muy maam Cheikh Ibrahima Fall ñu woote fi bis dajale fi ay koppar yu bari jóge fa jaar ci kër sëriñ Moudou mustafa Serigne Fallou. noonu lañu dem ba seexi sëriñ Tuubaa yépp mat nga xam ne si ne liggéey bi tey boo ko gisee nii yàlla dogal na nag biñ ko tàmbalee ba fi mu yeggee eh, liggéey bi biñ koy liggéey dañ ne woon ndox sax buñ ko ci jënd ndax diirub li ñuy liggéey liggéey bi ñu ngi ko liggéey ci biir corona bi daanaka boo ko seetee ci juróom-ñeenti weer la toll nga xam ne si ne mboolem xéewal yi nga xam ne si ne moom lañ fi daan xéewloo sax doomu aadama yi nga xam ne si muy mbokki taalib ñun ñii ñooy def saa bu ñu fi dajee ku ci nekk def saw ñaq liñ fiy lekk ci liñ ko indi waaye mboolem li nga xam ne si ne taalibe dañ koo dajale tam jëm si ci liggéey bi dërëm mu si jóg ba yàlla dogal mu àgg fii mu yegg loolee nag ñu ngi ciy sant bu baax mag ñi nga xam ne si ne téye woon liggéey bi nga xam ne si ne bi ñu fii ñëw jamono metti na waaye téewutit ñoom ci seen jëmmi bopp ñu xar seen tànkub tubéy ànd ak sëriñ Mourtala moom Cheikh Abdoul Ahad bañ jënd kër gii defar ko defar gu mucc ayib ñu wëlbatikuwaat nag sololaat ko meneen mbubb nga xam ne si ne eh, sëriñ xaadim bëgg ceerno mii moo nekkoon trésorier bi nga xam ne si ne lépp loo xam ne si ne dajale nañ ko ci loxoom la tegu woon nga xam ne bis bañ ko tàmbalee ba keroog bi nga xam ne ne bis bi mel ne nii mu mel lépp ci loxoom la nekkoon ñu àndoon kook sëriñ dem ba Fay mi nga xam ne si ne mooy Baay Faal te it liggéey bi ñu tegoon ci loxoom ñu àndoon ak moom ak mboolem ñi nga xam ne si ne ñoom lañ àndaloon liggéey bi sëriñ du mbay sëriñ Xaadim Thiam porte parole ak euh, mboolem ñi nga xam ne si ñoom lañ ko àndaloon. nga xam ne si ne boo koy seet yeesalaat gi nga xam ne moom yeetalaat kër gi biñ kuy biñ ciy mujj booba demoon na ci quarante trois millions yu topp yoo xam ne si defaat nañ ko ci kër gi. ba bërki démb lañ bi ñuy laylatun xadar lañ woote ne kat comme que les liggéey bi fii la toll léegi liñ bëgg mooy tapp yuñ def ci jàkka ji keroog yàlla dogal na suuru lay leen xatar bi ñu ko wootee nañ ko doxe woon rek na nañ ko doxewaat dañ ne woon mboolem bunti kër Serigne Touba ku ci nekk da na nga indi ab rouleau rouleau bu ne mi ngi jar cent soixante dix mille yàlla dogal na démb lañ ko commencé lal waaye yàlla dogal na moom fee moo ci des waaye nag li koy defar moom yàlla dogal na taalibe yi joxe nañ ko doxin wi ñuy doxee daay mooy lépp loo xam si ne jëm na ci kër Serigne Touba dañuy woo jëwri ñi nga xam ne moom lañ seqal liggéey bi ku ci nekk ñu ne la kat euh, indil nangam bu ko defee yooyu boo demee nga waxtaan ak sa mbooloo lañ la wax nga ànd ak ñoom indi ko moo tax wax dëgg yàlla liggéey wi ñu fi liggéey liggéey wu sell lañ koy liggéey liggéey boo xam ne si ne ñun ñëpp ku ci nekk dana ci gis sa bopp ndax yoonu murit dafa baaxoo euh, euh, bu bu dee liggéeyal Serigne Touba képp koo xam ne si ne aju nga ci kër gi rek war nga cee gis sa bopp nga xam ne si ne boo fa toogee da nga xam ne si ne yow saw ñàq dem na ci noonu rek lañ koy doxale di ko ànd ak nag suñ mbokk yi xam ne si ne dañ fee nekk muy suñ mbokki diine ñoom ñëpp ku ci nekk saw ñaq dem na ci muy suñ mbokki layeeni tiijaani ak xaadir ñoom ñëpp ndax fii bu yàlla dogalee bi ñuy màggal bi ñu fi ñëwee soññee bu am solo lañu fi def dajale seeni ëdd yi ñëw ànd koog nun liggéey bi loolee wax dëgg yàlla noo ngi ci sant bu baax a baax loolu daal la ne woon nañ ko ci leeral euh, xam naa kon li ci des rek ñu jox sëriñ xaadim kàddu gi sëñ Demba mi lu ci war a leeral rek mu leeral ci waaye daal sëñ Mourtala noo ngi leen di sant bu baax ñëw gi ngeen ñëw suñu xel sedd na ci lool ndax it kat wax dëgg yàlla liggéey boobu ngeen di taxaw ñun ñëpp ko war a taxaw fii ñu nekk it xidmatul xadim am na fi guñ duppee ga nekk foofe sëriñ Moustapha moo ko jiitu woon bu ñu fi jógee jox ko sëñ Aliou Thiam moo ànd koog suñ jëwriñ ji sëriñ Baara Fall doxin woowee ñuy doxit moom rek la ñuy dox mboolem li nga xam ne si moo aju ci kër sëriñ tuubaay ñoo koy saytu lu ci war a demit ñoo koy soññee luñ ci war a defit ñu def ko ànd koog dong yëpp te loolee bu amee ci yéen ñi lañ ko royee nga xam ne si ne ma nga tàmbalee foofu kon nag noo ngi leen di sant bu baax tey jii ñëw gi ngeen ñëw suñu xol sedd na ci lool noo ngi ñaan yàlla tànk yi xam ne si ne jóge ngeen ko bu ñëw ko fi yàlla def ko tànk yiw te fay leen ci fay jullit ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mamou Tall jëf ci leeral yi am solo bu ko defee ñu jël kàddu gi jox ko jëwriñu xidmatul xaddim fii ci Touba ajame muy sëriñ Demba Faye wax dëgg yàlla mooy bàyyi faalu kër gi ndax kat liggéey bi bi nga xamante ni xalaat nañ ko moom ci jëmmi boppam lañ jël liggéey bi teg ko ci loxoom kon su ko defee moom mooy mën a leeral nan la liggéey bi demee kon sëñ Demba bisimilah. aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu ak di leen balaq di ñaanal mun Muntaqa mu yàgg fi te wér yàggal fi sëriñ Amdi Moodu Mbendak njabootuk sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw bu nu santee bu baax teewaay bi nga xam ni teew nañ ko fi di siyaar sëriñ Seexuna Mbàkke mi nga xam ne nii mooy imaamu kër gi di siyaar bu baax sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Soaybu di siyaar sëriñ Issa Ndiaye ak mboolem kilifa yi nga xam ñoo nekk fii ci biir jàkka ji di dalal sunu kilifa yi nga xam ne ni ñoom ñoo fi ñëw tey ci taxawaayu muxaddimaatul xidma gin ginnaaw loolu it ñu ngi doolee sant bu baax ci teewaay yi nga xam ne nii teew nañ ko fi muy mel ni tey dafa nekk ci jéego yi nga xam ne nii mooy xam taarixu sëriñ bi fi nga xam ne nii jaar na fi ci àdduna bi yëpp ba yegg si fii ci Côte d'Ivoire gannaaw loolu it mu bokk ci moomeelu sëriñ bi fii ñu nekk di Touba Adjamé ñu di ci gën a sant bu baax sunu boroom waaye di ko jaarale ci sëriñ Mourtada Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne nii moom la sunu borom dogaloon mu nekk sunu jëwriñ ci jamono yi nga xam ne nii lan nekk woon ca dëkk quartier bi ñuy wax dalaas Dalas nag fii la ci Touba Adjamé soriwut lool. sunu borom suturaaloon ñu mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon yàlla xiiroon leen ci liggéeyal Serigne Touba te bëgg fu ko defee ba sunu boroom jox leen fa ab lu mel ni màkkaan di magasin loole nag foofa la liggéey ba tàmbalee nam tàmbalee it jànkonteel nañ fa lu nekk waaye Serigne Touba mi doon liggéeyal jar na ko ndax bunt bi nga xam moo féete woon ci biir kër gi ñaare boo duggaawoon ci daayira bëgg génn leen waa kër ga ñi nga xam ne ñoo fa nekk doon woon am jullit dañuy teg seenu ñoll di ko naan loolee nag taxutoon ñu yokkat taxutoon ñu taayal ci mag ñi ñoo fa ne woon gannaaw bi ñu sàkkoo ñaanuk sëriñ Murtada Mbàkke moom Xaadimu Rasuul nga xam ne ñëw na fii ñu si ko ziar ba waxtu julli jot mu dellu Treichville xam naa des na ci gën a dikk mag ñi ñoom ñoo ko ñoo xam taarix bi dëgg ndax fi la ñu fekk waxtu julli jot mu dellu Treichville ba mu delloo ca lan sàkku ci ndigalal Serigne Mourtada moom sëriñ Abdoul Ahad mbakke mu ñaanal ñu Serigne bi ñu am kër fii loole nag barke boobu wàcc na ci sunu kaw ba quatre-vingt-seize ci am kër gi kër gi nag taarix bi ah, nee nañ sëriñ Abdoul Ahad Mbacke wàcc na fi nee nañ it Serigne Salif Mbacke xam na ko te it wër nañu ne Serigne Mourtada Mbacke moom xaadima rasul moo tax xeer wi kon kër gi tànneef la ci maam moomelug sëriñ bi ginnaaw loolu it sëriñ Mourtada Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ànd ak taalibe yi laxasaayu di dugg ci taalibe yi muy taw muy muy taw muy liggéeyal sëñ Tuubaa muy naaj muy liggéeyal sëñ Tuubaa ba ñu jënd kër gi lu tolloog ñaar fukki million ak ñeent ci ab naar ñaar fukki million ak ñeent yooyu sax ci ndimbalal sunu borom am na ñoo xam ne ni taxawoon nañ bëgg a jox naar bi lu ko ëpp mu xamal leen ni fii néegub yàlla lañ fii def te luñ fi def yiw wa dana ma fa fekk loolu sabab na ci li nga xam ne nii jot nañ ci kër gi gannaaw biñ ci jotee it sëriñ Mourtada Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ni liggéey bii day nin ko fa yéenee tàmbalee dañ koy tàmbalee ci baabul muridina muy maam Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Issa Dieng dama bëgg ñu ubbi liggéey bi keroog biñ ko tàmbalee Baye Modou pen mi nga xam ne nii moo doonoon jëwrinu maam Cheikh Ibrahima Fall moo njëkk a woote ànd ko ki fi neel maam Cheikh Issa Diène bi nu laajee addiya ji bari lool ka ca topp di waa kër maam Thierno bi nu ñëwee suñ borom def addiya ji gën a bari noonu noonu ko defee defe def ba baay Modou Pène ci boppam ne Cheikh Ibrahima Fall kenn du ko jiitu damay laajaat revanche kon ci ñu résumé ko ci gàttal noonu lan def ba Serigne Mourtada Mbacke ci boppam. xool xam ne kër gi nit a fi dëkkoon Serigne Touba kenn du ko joxu des mu ne nan ko toj ban tojee xaaj bi ci njàmbaar googa nim ñu wonan ak lam taxewalan ci leen ci leen liggéeyee la kër gi ba xaaj bi mat ba mu it ñu xalaat ne li ci des kon nan ko yeggale ngir jëmmi sëriñ bi ndax lépp bees ca lan tojaat wàll gée nga xam ne nii fii la nekk sëriñ bi nekk yëkkati ko ba mu raase nekk premier kon loolu ci gàttal ci leen mën a wax ci kër gi gannaaw loolu it ban demee dem ba liggéey bi yegg ñu def fi ay école ci ndigalal Serigne Mourtada Mbacke ban ci defee ay école liggéey bi mucc ayib lool ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba sunu boroom mi nga xam ne moom moom ndoxam mi dëkk bi di senn dal bi di senn seexu naa Mbacke mi nga xam moom la ñu fi Serigne Touba yebalal joxuñu ko. ma ñëw ne ko sëriñ bi mu naa mane ko fii day suñ borom yoo la fi teg te sa kër maam gii mi ngi senn kon loo ci xam mu ne wool taalibe yi ma soññe kon ci kaw soññeem boobu ci lañ tege deuxième bi ba yeesalaat kër sëriñ Tuubaa yi ba mu mel nii mu mel kon ñoo ngi koy ñaanal bu baax ak mboolem ñi nga xam ne nii àndoon nañoo ñoom liggéey bi liggéey bi nag nin ko defoon ca tàmbali ba noonu lañ ko yeggalee ci turu xidmatul xadim ànd koog mboolem taalib yi nga xam ne nii ñooy jëwriñu xidmatul xadim ndax bu ñuy lim jëwriñu xidmatul xadim yi war naa mot fukk ndax cellule bu ne quartier bu ne am na jëwriñu xidmatul xadim ñu jiital ma teg ma ci seen kaw waaye dum ci dara moom lépp dañ koy sant sëriñ bi kon loolu moo doonoon kàddu yi nga xam ne nii war nañ ko ci mën a leeral lépp lu ci dëng rek ñoo ngi koy jéggulu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw Demba Faye Baye Fall jëwriñu xidmatul xadiim moom moo doon jottali kàddu yi li nga xam ni it mënees na ko cee leeral ndax dañoo lim ñu baax te am koo xam ne ni mooy buntu yoon wi doon royukaay ci yoon wi ndax maa ngi dégg ci mag ñi ñu ne am na téere yoo xam jikkoom la ñu yor wala jikkoy téere jikkoom la ñuy wax ci téere bi muy Cheikh Mouhamadou Aminata Fall ànd na ak Serigne Mourtada Mbacke toog fee keroog bi mu fi ñëwee lin ko fi lalaloon danoon lépp loo xam ne nii ku sant Mbàkke mos nañ ko koo lalal bu leen ma ko lalal keroog dañoo mujj wut ab mat la loolu it muy waay ci yoonu murit te kenn ku ci nekk war cee defum njàngat ndax ak taalibe rek moo mat a roy salaamaaleykum wa rahmatullah jëf sëriñ Demba Faye ci kàddu yu am solo yi ak leeral yi yaakaar naa dégg nañ ko su ko defee rek dañuy continuer waxtaan wi fi ñu waroon a commencer sax waaye nag sëriñ Cheikh naa moom wax dëgg yàlla suñ boroom daf ko boole ak ñun Côte d'Ivoire rawatina fii ci Touba jame mu nekk imam bi saa soo xamante ni moo ngi fi kon nag waxtu koor saa su jubee ba des ay fan moo fi ñëw teew fi bokk ci njabootuk sëriñ Touba gi waaye ak oyofam mooy naafile waxtu yi julli fajar ba gee mooy wàcc di jiite mbooloo mi kon nag moom la ñuy jël kàddu gi jox ko ko bu defee mu daal di jëwriñ ji di sëriñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir Boussa mii ci wàllu jumaa rek ak topp tànki sëriñ bi moo leen tax a jug te buñ ñëwee ba ci biir jumaa ji fekk fi sëriñ Seexuna Mbàkke mi imaam bi jox ko kàddu loolu jaadu na kon sëriñ Seexuna bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñi nuyu suñu kilifa ci kilifa ak yoonu murid lépp di sëriñ Muntaxa xalif général des ko siyaar bu baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér di nuyu tamit sëriñ Mourtala Mbakke mo sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne mooy jëwriñam fii si Touba Côte d'Ivoire di nuyu mboolem taalibe yi fi teew ñëpp ji jiite jiite yi def ci nuyu bi sëriñ Macoumba Thiam mi nga moo fi nekk sëriñ bi tamit jëwriñu Touba Adjamé sëriñ Baara Fall xam ne mooy jëwriñu kër Sëriñ Touba bi ginnaaw loolu nag ñu ngi nuyu suñ mbokk yi fi yëpp di sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Mamoud Fakk la di suy ma fari Ndiaye mi nga xam ne tamit fi nekkal si mu xadamul xilma di nuyu tamit ñi xamee ne ñoo fi ñëw. teewal fi sëriñ Afi Bousso di njiite Muqaddamatul Xidma di sëriñ Abdou Lahad Bousso ak ñim àndal di leen siyaar bu baax te di leen dalal fii si Touba Côte d'Ivoire di rafetlu bu baax jéego yu ñuy dox muy taarixu sëñ bi ndax lii lépp moom dañuy day wane na liggéeyal sëñ bi dafa daj kàpp àdduna kon nag ñu ngi sant bu baax di si am mbégte di ngeen ñëw fii nag si Touba Adjamé mu bokk si kër sëñ Touba yi nga moo nekk si Touba Côte d'Ivoire te la sëñ bi waxoon nag wajal bu yooti kullaha masajira yaa naa fin man la yakkoon saajira loolu nag moom ñu toog si barab bi nga xam sëñ moom day mel ne kër yëpp jàkk kon nag bu ñu nekkee ci barab bi nga xam ne moom la ñuy defee waxtaan wi kon nag loolu day wane ne liggéey sëñ Touba bi yaatu na kon daal sëñ Abdou Lahad Bousso yaa ñi ngi àndal ñëpp ñu ngi leen di dalal fii si kër sëñ Touba gi leen sant te di rafetlu taxawaay bi di di am mbégte loolu ci jéego yi na nga xamee na xam ne foofu ngeen jiite mooy eh, jumaay Tuubaa ja moo barab yi ab barab la si yenn yi ndax foofu mooy ndey barab yëpp mooy mooy mooy kon nag bi ñëwee di xencu jeex di sëñ bi egsi fii kon ñu sant bu baax di ñaan yàlla jéegu yi ngeen def sëñ borom defal leen si yiw defal leen si li ngeen sàkku lépp ginnaaw loolu nag kër sëñ Tuubaa gi moom nii rek la demee mooy na sëñ bi sanc këram yëpp rek jaamu yàlla ak liggéey fii tamit si jàkk ji mooy barab bi ñu toog ñu ngi fi saxal waxtu juróom yépp sëñ Issa Njaay mi mooy imaam ji nga xam ne mooy imaam yi daayira bi ginnaaw bu ñëwee tamit buñ fi ñëwee tamit nga xam ne bu weeru koor jubee lañ fi ñëw di ko jàppal si liggéey bi di fi taxawal saxu Ramadan al mubarak comme ni ko sëñ bi diglee nga xam ne mboolem fu barab bi sëñ bi nekk ñu dañ dañ dañ ko fay taxawal mooy wàccu kaamil alxuraan comme dañ koy defee jumaa tubaa Tuubaa ak njaareem ak barab yëpp rek loolu li day wane sëñ bi moom gu ko sëñ boroom moo no alxuraan loolu lay wone rek kon nag moo ñu indi fii ñu commencé woon ko nag mille 2009 ba waxtu bi lépp nag ànd ko ak taalibe bi am si ndigalu sëñ Murtala nag mi nga xamee ne moo fi nekk sëñ tubaa te lu waaye di def tamit moom si ndigal mu koy defee kon loolu moom lañ nekk ci barab bi loolu nag kon bu ngeen ñëwee nag eh, di xeeñ ci barab bi ñëw ba si Touba Adjamé kon nag eh, ñi ngi si sant yàlla bu baax xam ne daal taalibe yi moom lii lañ fi nekkee rek comme ni ko eh, sëñ Mamour waxee ak sëñ Demba kër gi noonu la sosoo jaamu yàlla ak liggéey yeesal gi tamit ni ko sëñ Demba waxee noonu képp la deme yeesalaat ko ginnaaw bi kër gi seen mu ñëw ñu biñ si waxtaanee taali bi def si loolu lépp ba tey moquette yi bërki mu lañ ko fi lal ngir gën a taaral bërëb bi kon daal kër Sëñ Tuubaa gi noonu la noonu la demee kon nag euh, ñi ñi ñi ñi sant yàlla bu baax daal ngeen ñaanal taalibe yi baax comme que ñoo ngeen fi jóge si barabu tedd ba ngeen ñaanal taalibe yi li nga xam ne yéene nañ ko si liggéey Sëñ Tuubaa bi lépp ñu am si lu lu kawe seen jot moom daal sëñ ma fëri Njaay mii rek fan yii rek mi ñuy waxtaan ci Muxaddamatul Xidma moom it wax dëgg yàlla am na fi taxawaay lool bëgg tamit ñu sàmm fi ay ay yoo xam ni ay kuréel yoo xam ni lépp loo xam ni Muxaddamatul Xidma yitte woon na ko rek lu jëm si liggéey bi ñu jàpp si kon noonu loolu tamit ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy gën a soññewaat baax baax a baax di sant yàlla baax nag ginnaaw ñëw ngeen fi ñëw di ñaanal dox yi ngeen ñëw yëpp muy aw yiw ak xéwal kon sant nañ baax kàddu yu daal lañ ne woon ñii nañ ko si sant nañ ko si sànni rek kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Seexuna Mbàkke imaam kàddu yi am na solo mu mel ni comme noonu nga ko waxee rek tudd léegi Baye Issa Ndiaye yàlla dogal mu imaamu kër gi moom saa soo teewee rek boo yëkkatee kàddu mel na ni yëkkati na kàddu muy lu rafet di ñaan suñu borom gën leen dëgëral su ko defee rek ñu daal di jël kàddu gi jox ko sëriñ ma fëri Ndiaye sëriñ ma fëri njaay nag bokk ci njabootu sëriñ tubaa gi maamam di sëriñ ma fëri suñ bu sëriñ tubaa seexal ko mu bokk ci seex sëriñ tubaay tey jii nag mu laxasaayu di sàkku ngërëmal sëriñ tubaa ni ñëpp mu xaddimaatu xidma gi yaakaar naa ne ku nekk ci dëkk bi boo ko xamee ñu ci bari sëñ ma fëri moo tax bërëb bum dugg dana jottali liggéey mu xaddimaatul xidma man mii doy naa ci seede ndax jéem yàgg na maa wax doonal jëwriñu Muxaddamaatul Xidma fii waaye comme ndomba yi takk fii dafa xaw a bari saa su ne ma koy jox ngànt waaye sëñ bu sa ñoo ngi lay seedeel ni sëñ ma fari mii fu mu xëy Muxaddamaatul Xidma la fay xëyal fu mu gont moom la fay gontal kon nag mën nañ koo boole sax ci délégation bi bu ko neexee toog ci délégation bi bu ko neexee tamit nekk fii bokk ci taalibe kon nag sëñ ma fari ñu jël kàddu gi jox la nga jottali ci say kàddu incha allah. rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante sunu borom tabaaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi sant sëriñ Tuubaa di ñaan sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké sunu borom yàggal ko fi loolu ànd ak wér ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem Cheikh Sëriñ waa yëpp ñoo ngi siyaare waa mu Muxaddamatul Xidma Jumaay Tuubaa ci njiitul sëriñ Afiya Busa ak sëñ Abdou Lahad Thierno mii ne sama wet ak sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Lahad Moutalib ak sëriñ Assane Diop diaspora te mu féete ci Espagne ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di am kontaan ak mbégte ci déplacement bi ngeen def ñëw ñu fii ci Côte d'Ivoire ci Abidjan ñu nekk fii ci daayira Adjamé ñu nekk fee kilifa daayira bi sëriñ Cheikhouna Mbacke imam mii nii ak sëriñ Salihu Mbacke doon sët sëriñ Sohaybu waaye ñu ngi ak sunu jëwriñ euh, sëriñ Bara Fall mi a jame ak sëriñ Aliou Thiam mi doon doon jëwriñu Fayda Daarayni sëriñ Xaalim Thiam bëgg Cerno ak sëriñ Mamour Tall sëriñ Xaalim Thiam porte ak sëriñ Demba fay ak euh, sëriñ Xaadim Seen ak mbooleem kilifa daayira bi yëpp. waaye siyaare bi war a siyaare jëwriñ ji ñu ngi ci jiital alxaaji Magumba Caam mi nga xaaji ni ne mooy représentant xalif général kulu murit fii ci Abidjan doo am ci taxawaay bu mu sëkk wax dëgg yàlla fa tabaarakallah doon jàmbaar lool ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko jaajëfal bu baax a baax waaye si yëpp ñu ngi leen di dalal bu baax fii ci Côte d'Ivoire di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala tànk yi ngeen yëkkati mu defe leen ci lu kawe suñu yor defal ñu ko ni ngeen jógee di saytu jaar-jaari Serigne Touba Xaadim Rasul lu am solo lool la rawatina nag ngeen jiite liggéey bu am solo mooy mu xaddimatu xidma jumaa ji te yàlla dogal liggéey boobu bi ngeen ko tegee sama loxo Mali laa njëkka a jaar euh, ba ma ko waxtaan ku ñu maam ba liggéey ba ma ci waxtaanee moom mu jiwoo ci man ma waxtaan ci ak jëwriñ ya ñu ñu ànd ci ak man wax dëgg yàlla waa Mali taxaw ci taxawaay bu rafet ànd ci ak maam maam Gourdia ak sëriñ Mbay Caam ak sëñ Pape Diop kask bu la ñoom ak sëñ Maam Balla Mbàkke ñu def ci taxawaay bu rafet yàlla dogal ba ñu jógee ñu ñëw Côte d'Ivoire ñu ngi njëkk wàcc Yamoussoukro bi ñu waxtaanee ci ku ñuy waxtu Touba Lo waxtaan ci ak moom wax dëgg yàlla mu jàmbaare ci lool daal ci sawar lool daal ci jël engagement yàlla dogal bi ñëw fii ci Côte d'Ivoire ci Abidjan eh, treize li waxtaan ci sëriñ Sadikh Kane mi mooy mu sawar ci lool wax dëgg yàlla def ci effort yu mag Euh, ma waxtaan cee ku ñuy wax Ibrahima Ka mii ni fii ci Dallas moom itam mm, wax dëgg yàlla mi ngi ko ci jàppale waaye liggéey bi ñu ngi ci tàll gën a tàllal loxo jëwriñ yi maanaam ñu gën cee jàpp ndaxte jumaa ji gis ngeen koor gi euh, maanaam li ñuy fere dépasse day bari lool ci euh, ci koor gi ci ña fay ndogoo si ak it jumaa yi xëy si nii ne waaye jumaa ju mag ñoo leen dimbali te ñoo yor bàqe ya penc mi li ko lépp ñoo ko yor te ñoo yor margu ba te loolu lépp ay dépassement ay ay ay yu bari la te jumaa ji entretien bi ñuy def ci euh, lamp yi ak clim yi ak ventilateur yeeg yooyu loolu ay euh, frais yu bari la même mu ko dañuy ci jumaa ji ak yooyu mm, loolu daal ñu ngi ci tàll loxo bi ci addina bi yëpp euh, ñu gën cee taxaw wax dëgg yàlla waa Côte d'Ivoire moom jàmbaar lañ képp ku leen woo Sëñ Euh, dañ la ci wuy si ndax suñ tubaa rek moo leen ñor te lii ma wax ni kilifa yu bari seeral nañ leen ko li am solo nag ñu ngi leen gën a tàllal loxo daal yéen jëwriñ yi nga xam yéen jiite liggéey suñ tubaa bi ngeen seet nu ñu def donte dañuy am ay commission yoo xam ci nii ne dañuy laajal addiye euh, ñu dajale ko muy dem ci jumaa ji bu koor gi jubsee ak waajtaayu màggal gi ak gàmmu gi loolu daal ñu ngi ci soññee bu baax a baax te niñ taxawalee liggéey bi fii ci Côte d'Ivoire ko joxee ca Lomé Togo Mamadou wax dëgg yàlla jàmbaar la mu ci góorgóorlu Gabon it yóbbu naa fa liggéey bi maa ko jox ku ñuy wax euh, Badou Sène ak Moussa Dramé ak Cheikh Mbengue ñoom ñoo liggéey fa ca Gabon ba ma jógee Gabon it dem naa Congo Brazzaville ba ma demee euh, Brazzaville euh, Pointe Noire joxo naa fa ku ñoom waaye nag Congo moom xam nga yëfe moom réew ma Afrique centrale day xaw a doy waar waaye teew ñu ngi koy soññ ba léegi daaw bi ma demee Douala Cameroun ku ñu wax sëñ Saliou Niass waxtaan naa ca ba yàlla dogal ma déggoo ci ak moom ba woon sa iblaat mi ba waxtaan cee moom buñ dugal ko ci groupe bi sax ba fekkente ne sax moom am na ay ay doxalin ñu ci daan doxalee waaye eh, dañoo bëgg maanaam doxaliin ba mu méngoo jamono comme doxalin bi ñu doxalee xaalis ni lépp lu man doon dañ koy jaarale fu leer da daayira bu ne loo yónnee mu ñëw ci jumaa ji sa iblaat dana bind ab leetar ah, sëñ affaire signé ko ñu foto ko am waaye ko ci groupe yi ñëpp xam ne eh, diw kat dugal na lii ci de Moukhaddamatoul Khidma te dañu bëri Moukhaddamatoul Khidma ab dërëm ku ko ci dugal na la wóor ne dana àgg ci jumaa ja te jumaa yi Sëñ Tuubaa ji lépp lu ci waay def maam da feeñ faaw man de xam naa ci dara te bari na ñoo xam dinaa ma yow de sant nañ la bi ñu dugalee ci jumaa ji waaw bari na ñu wax loolu ne ma sant nañ la bi ñu dugalee ci liggéeyu Sëñ Tuubaa naata gis nañ ci ak yokk goo xam ne ci nii ne maam jaaxal nañ seeni mbir loolu bari na kilifa yu ma ko te loolu Sëñ Tuubaa ñi bor daa ak fay te Sëriñ Tuubaa dafa nekk bërigub diw noo tëmboo rek na ngay nii ne bu xoolee mag ña ànd ak ak ña ko kontar boo xoolee jamono jii dañuy xam ne Sëñ Tuubaa ànd ak moom moo gën ñàkk ànd ak moom kon ñu ngi leen di gën a soññ ci liggéey bi eh, ñu gën ci góor góorgóorlu ñëpp eh, nu ñu ko doxalee fii ci Côte eh, boo demee ca Espagne ak suñu Assane noonu la ko doxalee Espagne ak ay Italie France ak Allemagne diaspora bépp noonu la ñuy doxalee waaye dañoo bëgg waa Côte d'Ivoire bu màggal jotee bu ñu indee seen addiye ñu xam ne waa Côte d'Ivoire indi nañu addiye joo xam si nii ne benn réew mënu leen naata maal gi weesu ko def ngeen jëf ju rëy ca sëñ Muntaxa daayira Côte d'Ivoire yi li addi jigéen yónnee man di dégg dégguma benn daayira bu fa indi ju toll noonu kon nag loolu it mën ngeen ko ci jumaa ji ñu ngi leen ci tàllal loxo jumaa ji ngeen am ci pas-pas bu wér ñu di ci jëf bu wér te nee leen wër ne fañ jëm alaxira Sëriñ Tuubaa nee na lu waaye def ci lu lu baax lu mu bari bari boo gontoon fanaan ne alaxira da nga ko xeeb nee ku def safaan lu mu tuuti tuuti boo gontoon fanaan da nga kon nag lu baax du doy nañ gën a góorgóorlu ci liggéey sëriñ Tuubaa bi gën a góorgóorlu ci jumaa ji ndaxte jumaa ji nga dafa benn mokket nit julli fa rek tuyaaba ji kenn xam nu mu tool nga joxe fa eh, eh, sa addiye ñu jëndee ko nit ndogoo fa lekk fa benn tàndarma wala mu naan fa kafe tuyaaba ji kenn xam nu tool man mi 2020 eh, ko Sénégal laa woore ndogo naa fa am na benn waxtaan boo fa defoon ci jumaa ji gis naa nit ñi nañu ñëwee te yàlla doon na it man nekk naa fii sama waa kër ne dañoo bëgg a siyaare ji sëñ Abdoulaat mi ba ma ko woo damaa yombale lépp ba ñëw ñu ne ma bañ juddoo ba léegi tey lañ mas a am li ñu am ci jumaay Tuubaa te lu dara loolu rek jar loolu lu ma lu ñu sonn sonn rek jar na ko loolu loolu rek jar na ko jël na nag tuyaaba yi yeneen yi ci nekk kon nag ñu ngi leen ci gën a soññ yéen ñëpp waaw ñu ngi leen sant bu baax te sëñ Saliou eh, sëñ Abdoulaat ñu ngi lay seeral sëñ Seexuna mii wax dëgg yàlla gàcce ngalaama nii mu taxawee ci eh, Touba Côte d'Ivoire gii ci ajjame gii ci daayira bii bu sëñ Tuubaa dil si woon jamono di fii de moom day ni mu taxawee du ko du ko weesu ndaxte waxtu julli du ko raw te koor gi kaami fi naafila tey lépp luñ ko fi indil mu bokk ak mbokkam yi fi nekk waaw man loolu mat naa seere wax dëgg yàlla luñ ko indi ci teraanga lu mu man di doon du wane ne man maa tax ñu indi lii wala dara moom moo moo kaxaay si ndey soo ko agsi doon gan sax moo ci yem loolu jikko ci rafet la te nit nag bu la defee teraanga danga ko man sant naa ko baax a baax te it dëgg yàlla jàpp naa ni ni ma ko sante kilifa fi ñëw yëpp sant nañ ko noonu ñoo ngi koy siyaar bu baax di siyaar sëñ Saliou Mbacke mi di siyaar sëriñ Xaadim Seen mais xaaj si nii ne mooy jëwriñu daayira xasaayit moom sëñ Xaadim Seen mali mooy jëwriñu daayira xasaayit kon sëñ Xaadim Seen ñu ngi lay soñ ci liggéey bi yooyu itam nga gën ko jotlu waa daayira xasaayit ñëpp ñu gën cee jàpp ak suñ suñ baay Issa mi xay imaam la ak sëriñ Aliou Lo mi ci magi daayira bi la mooy ñoom itam ñu gën a góorgóorlu rek gën a soññee rek ci liggéey jumaa ji kon ñu ngi leen sant bu baax di jërëjëf sëriñ ma fëri Ndiaye wax dëgg yàlla kàddu yi kawe na lool xanaa kay gàttaay bi rek moo ci xaw a kii mu mel ni ñu ci bari am na tey luñ ci xam loo xam ne mosuñu koo xam eh, wax dëgg yàlla yéene ji ak doxin bi ñëpp xam nañ ko yàlla na la suñu borom gën a taxawu noonu nga koy limee ci ki Afrique yi mu dem ba ci dëkk yi nga xamante ni mooy dëkki tubaab yu sori yi ndax soldaaru sëñ tubaa nga yàlla na la ko sëriñ bi defal su ko defee rek. mu mel ni képp koo xam ne yaa ngi fi toog fii bu ñu sañoon jël kàddu gi jox la ko waaye Touba Ajema moom ni ñuy doxee ñëpp xam nañ ko xëccoowuñ ci dara ba tax na comme toogaay bi day xaw a yàgg ñu jël kàddu gi jox ko Serigne baara Fall mu yóbbaale ñëpp nga xam ne moo fi nekkal Serigne ma Gumba Thiam mii fi nekkal sëñ mun taxaa ba siiru fii ci Touba Ajeme kon sëñ Bara ñu jël kàddu gi jox la bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu baax di leen siyaare ñu ngi siyaare sunu kilifa yi ñu toogal di leen jéggulu di leen dogal ci toogaay bi di ñaanal sëriñ Muntaxa Basiru sunu boroom yàggal ko fi te mu ak wér di ñaanal sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne mooy imaamu jumaa Touba di sant sunu gan ñi sëriñ Abdoul Ahad buso mi nga xam ne mooy responsable culturel bu jumaay Touba ah, di ziare jëriñ jim àndal mi sëriñ Jili buso jiite lépp luy wàllu communication ci biir jumaay Touba jiite télévision bi di MKK TV kon di leen dalal fii ci daayira Touba Adjamé waaye di leen dalal ci réew mii ci Côte d'Ivoire euh, tànk yi ngeen dox siit muy tànki xeeñtu yoon murit euh, ngeen jóge euh, Bénin Cotonou ak Togo ñëw jaar si fii wara a jëm Conakry euh, loolu muy tekki ne euh, ni sëñ bi jóge woon Sénégal jëm Gabon yaakaar naa Gabon ngeen jiital doo koy teg réew yooyu kon loolu xeeñtu liggéey Sëriñ Tuubaa la ba agsi fii ci Abidjan li nga xam ne ab taalibe munta ñàkk ci moom wala maanaam dafa bokk ci ab doxam wala bu ko dabee ci àddina bit moo xam ne euh, dafa mel ne suñ borom dañ koo mooñaale ndax dañ Tuubaa li ko jële Sénégal yóbbu ko Gabon bokk na ci dimbale jaam ñëpp ñun ñi sax li ñu jële Sénégal indi ñu fii bokk na ci dimbalee ñan mën a dimbale ci senegal muy wuteraangal àddina ak alaxira Euh, sëñ naa ñu ngi lay siyaare bu baax a baax ci taxawaay bi sëñ ma Fary Ndiaye wax na ko jëruñu ci del si wax dëgg yàlla ni muy taxawalee weeru koor wi fii nga xam ne daanaka mën nañ ne ci barab bi sëñ Tuubaa yilif fii ci Côte d'Ivoire ci moom ñu njëkk amee kuy jàng naafile kaamil alxuraan ba mu mat comme nañ ko defee ci Touba Njaaram ak feneen ci biir Sénégal di siyaare sëñ Saliou Mbacke moom soxna maam Dieng moom Cheikh Souhaïbou bokk ci bokkat ci ci waa sëriñ Mamour Diarra ñu ngi koy ziare bu baax di ziare sëriñ Issa Ndiaye imam koy nuyu bu baax di ziare sunu wóllëre sëriñ Mafari Ndiaye moom it ci kàddu yi mu sànq di nuyu mbokk yëpp sëriñ Abdou Baaxe nga xam ne mooy responsable organisation bu Côte d'Ivoire ci xidmatul xadim mm, liggéey boobu it mu jiite ko fii ci ajame sunu jëwriñ ji ñu làngool di sëriñ Aliou moom it bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo sos daayira bii àndoon ko nag suñuy wayjur di Baye Matar Gueye sëriñ Adama ñaŋ Baye Moussa ñaŋ sëriñ lemin Gueye sëriñ Modou Pen ni sëriñ Demba tudd sànq ak sëriñ Modou ñaŋ ak sëriñ Modou Gueye Tivaouane nekkoon fii euh, commune yoroon communication daayira bi euh, sëñ Xaadim Caam mi it topp ci ñun ci jiital liggéey sëriñ Tuubaa bi fii nekkaat it jëwriñu fédération boroom Daaru Muxti fii ci Côte d'Ivoire kon daanaka jataay bi mel na ne daara bi yëpp ngi fi wala ndawul taali bi yëpp ngi fi Ah, sëñ Cheikh Dieng ñu ngi koy nuyu di ko ziare moom nekk fii ci kër sëñ Tuubaa gi bokk ci ñi saytu liggéey bi kon sëñ Abdou Lahat ñu ngi lay nuyuwaat di la ziare waat di sant bu baax ci ñëw génn ñëw fii daanaka sunu mbokki taalibe yi sëñ Mamour Tall sëñ Demba wax nañ li nga xam ne mooy histoire wu kër sëriñ Tuubaa gi nga xam ne dañ ko àndoon ak sunu mag ñi ma tudd sànq nekkoon fekk Dalaas ba yàlla dogal lii xew-xew ñu ko sëñ Demba waxee ak sëñ Mourtala Abdul Ahad mu taxawuñu bañ am kër gi la fi xew lépp ba mu agsiwaat ci geesalaat gi loolu pas-pasu dongay rek la moo xew Treichville fii ngeen jóge di Touba yëpp gon xilmatul xaddim taxawal ko bu subaa ñu war a jëm Grand Bassam Grand Bassam nga xam ne mooy pilier bi wala mooy prioritaire lu liggéey bi nga xam ne moo tax ngeen jóg ñëw fii muy li ma waxoon ko tàmbali ba muy xeeñtu liggéeyu Sëriñ Tuubaa kon mu mel ne euh, kër Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne am na ci diaspora bi gi ci njëkk ñu mën ko tudd fii la fii la tàmbali woon muy Treichville loolu ci janvier 1940 la kër googu waaw ñoom sëñ Aliou Thiam ñii ñoo ko yor sëñ Magumba Caam di jëwriñu taalibe yëpp ci réew mi kon man na nekk kër sëñ Tuubaa fii la tàmbalee li nga xam ne it mooy fi ngeen jóge du liggéey kon liggéeyu xidmatul xadim bi nga xam ne moo doon jéem a lëkkale taalibe yi nekk ci biir Côte d'Ivoire yëpp te man ma ciy coordinateur nga xam ne sama yitte yëpp ak sunu liggéey bépp li ñu sëñ Tuubaa sant muy ànd nekk benn moom la ñuy dox moom la ñuy waxee fu ñu moom la ñuy nooyee suñ bakkan lañ ci teg loolu moo undi woon xidmatul xadim gannaaw bi nga xam ne daayira bi jox nañ ma ko ma jiite ko daf ñuy may rek possibilité yéen a amoon ci jéem a boole taalibe yi ñu man koo wéyal kon loolu ñoo ngi ciy sant jëwri ñi nga xam ne ñoo teg liggéey bi suñu loxo tàmbale ko sëñ Aliou ak mag ñi fi nekkoon nga xam ne ñoom ñoo yoroon daayira bi ndax gis doxin nu ñu dox ci jéem a boole lépp muy benn moo tax ñu jël daayira bi teg ko suñu loxo ndax dalay may opportunité pour nga mën a dox liggéey boobu kon loolu bi nga xam ne def nañ ko mel na ne résultat bi mooy fa ngeen jógee mooy yëpp gon ndax ni kër sëñ tubaa njëkk fii ci réew mi kër sëñ tubaa gu ab ivoirien di jiite difa fa ay ivoirien te mu tudd kër sëñ tubaa loolu yaakaar naa bëre gu ci réew yi fu ne am na kër sëñ tubaa waaye na réew mañ ko def nga ñëw fekk daayira bi fees dell ka jiita nekk ivoirien ca tudd kër sëñ tubaa loolu yaakaar naa Côte d'Ivoire gii la am kon liggéey bi Xidmatul Xaadim doon liggéey ci réew mi nga xam ne suñ yitte yëpp mooy fexe ba waa réew mi dugg ci liggéey bi xam kan mooy Serigne Touba am fu ko teg ba xemmem yoon ba ci dugg résultat bi mooy fee ngeen jóge mooy yëpp gon ndax ñooñu day jamono ji ñu toll moom ñi ngi xam kan mooy sëriñ bi loolu it Cheikh Ayma mi nga xam ne moo jiite COSIM moom la taxoon mu dem Sénégal ci jamono yi ñu génn ñoom bañ demee senegal ba ñëwit ah, ban gisee sëriñ bi waxtaan ak moom sëñ bi am leen booleel ñu ñëw fii bi ñu ñëwee fii ñoom seen bopp ñoo waxal ne seen bopp ne am nañ beneen bët bu ñuy xool yoonu murit kon wuta naa ak jamono yu ñu génn rax fu na dëkkal nañ ñu fa nag murit yi na fii fu na dëkkal nañ ñu fa loolu it yaatu na ci àddina la ko waral nag du ñoom ci ñun la mooy ñun ñoo yaatal woon mbir mi ñoo ko yemaloon suñu bopp sëñ bi neex na ñu téye ko ñun dong bokkuñu ko kenn loola moo waraloon ñu nuy xoole foofa ndax dañuy màggal rek di rey nag di lekk di naan ñaan ñibbi loolu def nañ ko fii pendant soixante ans amul benn résultat yaatu na ci kër sëñ Tuubaa nag waxuma ko duwaar dong boo demee États-Unis ma ngi koy fekk soo demee Italie même rythme bii ñu doxee fii noonu la ko Sëñ Tuubaa bi doxe loolu nag gis naa ne aw xel la woo xam ne amoon war naa am limite ñu dem benn étape beneen étape bi mooy gannaaw boo amee kër gi ba noppi rafet na taaru na mel na la bëgg wutal contenu bi dugg ci biir muy liggéey Sëñ Tuubaa nga wër ko nag bañ ko wër ci nag biir Sénégal yi ndax ñun liñ mel mel nañ ko ba noppi Euh, soxna Astu Fall moom maam Seeraay Fall waxoon na ne fii am na loo xam ne diggante Touba Njaareem la xaj kon bu leen ko wane fii fii nañ fi wane diine ak lislaam ji nga xam ne moom lañ Sëriñ Touba sant moom la jàngale loolu mooy tax waa réew mi di la gis di xam ne jullit nga waaye nag lay xaw xew kër seex ca Njaareem Baay Fall di ko jëfe di xew ci biir Njaareem di xew ca ñaari Baay Faal di xew feneen ak boo ko bëggee wane fii ci tàmbali duñ la mën a comprendre duñ mën a xam looy def kon dañoo war a tàmbalee ci dàtt bi fi sëriñ tubaa tàmbali woon muy wan diine wan lislaam ba yàlla dogal nag ñu àgg foofu nag loolu xam ñu ci tëb ñëpp ñu xam kan mooy sëriñ Tuubaa kon loolu ñu ngi koy tàmbalee am benn muy yëpp wooyee loolu it yéen ñii nga xam ne yow mii di sëñ Abdul Ahad yaa jiite commission culture ci wàllu njàngalem diine ci jumaay Tuubaa fa ngeen jóge jóge ngeen am nga fu ngeen jëm li des ci liggéey bi mooy ci diaspora bi nañ génn daayira yi dugg ci réew mi nekkal wax leen kan mooy Sëriñ Tuubaa loolu dafa bokk ci liggéey bi ndax ñun ay tukkat lan yàlla mën naa dogal ñenn ñi di rentré ñeneen di ñëw waaye nag bu jëlee liggéey bi teg ci loxoy waa réew ma ñu nekkal ban dooni taalibay murit danañ ñu ko sàmmal ci waa coono yu bari daan ñu wàcc ndax am nañ fii daayira ivoirien ñoo fi defoon journée euh, conférence internationale xaadim rasool ay waa réew ñoo ko taxawaloon mooy imaam Daawuda mi nga jógee ak ay moroomi ivoirien ñu jàppale leen ci ba looloo taxaw ba looloo taxawee gis nañ ci njariñ loo xam ne fii ci réew mi réew mu ne war nga mën a def loolu gis nañ ko état bu yàggut am na réew yu ñu woo fi sax di ko bëgg a ëgg ci seen réew naa Mali bokk na ci maam Balla Mbàkke fa nekk ñu wax ne da koo a def ci biir Mali euh, sëñ Xaadim mais ba koy wax ca Touba ñoo dendoon kon loolu dafa bokk ci liggéey bi ndax liggéey bu ñoo dafa boo xam ne da fay àgg ci dem ci beneen étape kon étape bi ñu nii que Sëñ yi baax na lool bari na lool waaye nag lii nekk ci biir kër gi ndax ah, madrasa xablal masjid ñun ñi suñ bopp sax njàng mi ci Sénégal yi fi juddoo day des lu bari kon formation bi ak xam-xam bi ak njàng mi rëcc na sama classe gi waaye waaye nañ fexe ba kër yi sunu doom yi ñëw ëllëg ku fi ñëw ñu mën la wax kan mooy Serigne Touba ci français ci lakk réew mi ba nga xam ne lu baree baree bare dana feeñ. ci liggéey yooyu nga xam ne moom lañ dëng ëllëg kon xam naa duñ duñ mën a guddal ah ci liggéey bi waaye liñ amoon yéene wax lépp ci wàllu boole ah, murit yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir réew mi ah, loolu mën nañ ne des na lu bare bare bare bari ndax ñun ñooy coordonnateur Xidmatul Xaadim waaye it ma gumba caam daf ñoo denk liggéey boo xam ne mooy coordonné mboolem jëwriñ ñu nekk ci biir Côte d'Ivoire ci liggéey boo xam ne ndigal lu ñëw ñëpp ñu bokk songandoo ko yëkkatandoo defandoo lañ ko suñu santé kon ñoo ngi sant bu baax sëriñ Mourtala que sëriñ Tuubaa yi fi nekk mën nañ koo lim bu dee Abidjan gi am na fii Treichville ak Bassam ge ngeen joge yëpp goo ngeen war a dem Bassam suba que sëriñ am na Buwaake am na Yamoussoukro am na Gagnoa am na San Pedro euh, Korogo ña ngay waaj waaye amaguñ kër Sëñ Tuuba bari na mébét yoo xam ne si ñu ngi koy mébét ci kër Sëñ Tuuba yi bari dëkk bi ndax it taalibe am nañ xëru goo xam ne fan nekk fu ne dañ fay bëgg am seen moomeel goo xam ne Sëñ Tuuba ko yilif loolu moom taalibe bi yëpp fu waaye mën di nekk mi ngi ci am xelam kon ñi nga xam ne am nañ ko ba noppi muy ñun ak ñeneen ak ñeneen sunu étape bi xam na moo topp ci kër gi nag mooy fexe ba xam-xam di fi di fi di fi génne ñu fiy jàngale xam-xam di fi wone kat mooy Sëriñ Tuuba kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne ci lañ jëm ah, di taalal loxo it ci loolu taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ah, Côte d'Ivoire ñëpp kenn ku ne fa nga nekk boo amee kër Sëriñ Tuuba nañ góorgóorlu ci loolu kon ñoo ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ci Adjamé ah, lim nañ ko sànq waaye ñi sant ñi nga xam ne ñoo lañ bokkal liggéey bi ci l'intérieur bi ku mel ne sëriñ Bala Diop ma nekk Yamoussoukro sëriñ Alaaj Ñas ma nekk Gañwaa sëriñ Masar Amar ma nekk Buwaake sëriñ Dame Gueye ma nekk Divo sëriñ Alaaji Mëgey ma nekk San Pedro ma nekk euh, Abe Nguru xam naa buñ limee duñ matal waaye ñooñu dañoo nekk jàpp ci liggéey bi ndax barki démb sunu mbokki taalibe yi nga xam ne genn ah, ci jëwriñ ñi muy sëriñ Saliou Diop mu fi wàññi ko barki démb ci jóge woon yaamu sukkur suñu borom def ñu am ab soog ci yoon wi la cay xëy xew ca taalibe yii nekk ci l'intérieur bi ñëpp a jëwriñ yëpp kenn ku nekk feeñal sa yéene ci liggéey boobu kon liggéey boobu mu ñoo am tey ji occasion sant leen ah, ba pare mu ñuy ci moo tax ñu dugal ci seen i kàddu sant leen ci liggéey boobu nga xam ne ñoom ñëpp taxawe woon nañ ko bañ yóbbu Saliou Diop denc ko Daaru Salaam ñaanal ko gunge ko gunge mujj kon ñi ngi sant ñëpp sëñ Abdoulaye wax dëgg yàlla kontaan nañ lool ci ndaje bi ah suñu jëwriñ meyit nga xam ne moo gite MK TV waaw sëñ Jili sant nañ baax baax ci taxawaay bi sant seen technicien bi nga xam ne moom ngeen àndal ci wàllu audiovisuel bi kon ndax naa dañuy ñaan fa asalaamaaleykum wa rahmatullah limub taalibe yi suñ ko doon xayma moom xam naa du yomb euh, loolu moom bari na waaw bari na ndax fii euh, consul général bi Sénégal sax mun laa wax limu sénégalais yi ndax lii problème bi mooy waaw moom ñin amal consul rek lañ mën limal ñun ñii it ñii ñëw daayira lañ mën a xam waaye ci murid yi nekk ci réew mi ñoo ñëw daayira cinq pour cent ñoo ñëw daayira ndax fii boo fi ñëwee dimanche la ñuy daayira daayira sëriñ Tuubaa bi nga ñëw fi alxames bi sëñ Xaadim may jiite muy daayira xasida suñuy kuréel ak ca ajo ah, loolu ngay mën a xam boo wootee xew-xew nag wala màggalu tubaa ngay xam ne nag fii murid yi bari nañ fi ndax màggal moom lu murid jàpp danga ko bàyyi ñëw màggal si ak foo mënti nekk waaye yeneen bis moom dana xaw a yaraax kon tudd ab lim moom ci murid yi moom du yomb activité yi nga fi laajoon mooy activité peut-être génératrice mooy seen wàllu liggéey yooyu it dafa varié bari na fi bokkut ndax seen xaadim mais ab bijoutier la man mi ma nekk tailleur ñi nekk ay commerçant ñenn ñi nekk ay maçon donc kon man nga ne liggéey liggéey yi moom ñeenti liggéey yooyu molim muy commerçant ay couturier ak ay bijoutier boo doon xool ñooy majorité bi moom fii ci réew mi moo moom moo fi ëpp bu dee jigéen ñi it euh, ñi fi gën a bari mooy ñi fi yor ay restaurant restaurant yi ñoo fi gën a bari euh, xëy na la ci des euh, mooy kafe gi ba léegi ci biir restaurant bi lay dugg wala wàllu coiffeuse yu mel noonu am na fi waaye daal restaurant daal ak jigéen ñi nga xam ne ñoom dañ fay fekk seen i bërëm kër ci defuñu dara dañ leen fiy indi rek ñu yor seen liggéeyu kër comme nañ ko yore ci Sénégal loolu it bari na fi lool. entreprise yi it am na ñu ko fi yor ba léegi entreprise bâtiment moo fi gën a bari ca loolu it mën nañ ne taarix la ci réew mi ndax ci jamono yi houphouët yi dafa laajoon Senghor ay entrepreneur bâtiment ndax dafa ko soxla woon ci réew mi dem Burkina laaj baykat ndax booba dañoo manqué woon tuuti ay liggéeykat mooy ressources humaines dañ koo manqué woon moo taxoon entrepreneur yi ak professeurs yi jàngalekat yi ak lépp lu xeetoo wàllu bâtiment ñoo njëkk ñëw ci réew mi ak ay jàngalekat ñooñu sax ñoo jàll Gabon nekkaat fay entrepreneur nekkaat fa aussi ay jàngalekat ndax ci taarix Senghor dafa mas wax euh, euh, Houphouët-Boigny dafa mas wax Senghor su ma amoon sa nit ñi nga am Senghor dellu ko laaj na ko su ma amoon sa suuf si nga am waaw su ma amoon sa am sama réew dina romb fii Senghor ne ko mooy su ma amoon suuf si nga am sama réew dina romb fii kon bu mel ne kenn ku ne da ngaa am lu sa moroom amut ngeen fexe boole loola nekk benn moo waral entrepreneur bâtiment yi fii am ñu fi ñëw ci daayira bi ñoo xam ne ay entrepreneur bâtiment la fa ngeen jógee du yëpp gon ka liggéey liggéey ba ab entrepreneur bâtiment la muy Moustapha Dieng moo fa nekkal xamatul xadim foofa moo wax kër ga moo tax lii it nga gis ni it Moustapha Dieng moom moo ko defar kon fii ay entrepreneur bâtiment boo demee Treichville am na fa kon loolu ci wàllu entrepreneuriat loolu moo fi gën a bari waaye nag am na fi nag ay techniciens yoo xam ne si état moo leen fi yebal ñu ñëw fi nekk ay taalibe ci ci ci ci état lañ fiy ñëwee waaye nag buñ fa jógee nag buñ xamee ne que Sëñ Tuubaa yaa ngi fi dañuy ñëw ànd ñun liggéey bi ba bañ leen fañ jóge woon loolu it am bari na fi lool ci ñuy liggéey ci fii date bi euh, kër sëñ Tuubaa gi moom ni la ko sëñ bi waxee woon 1996 lañ ko jënd euh, waaye nag daayira moom jiitu na loolu ndax daayira xasaayit bii sëñ Xaadim bi jiite 84 dañ ko sosoon fii 84 ñu ko daan dajee fii soriwut ba yàlla dogal ñu jël fële luyee ko fekk fa mag ña di fa def ñaari daayira yëpp ba ni mu ko waxee sëñ Mourtala moom sëñ tubaa ñëw fii barab ba xat lool ci ziar ba te amul fu mu mën a waaja yaakaar naa sax ku déglu ay vidéo ci fan yi ñi génn dana gis vidéo yoo xam ne sëñ Mourtala Abdoul Ahad moo ko doon def doon ci leeral étape boobu nga xam ne sëñ bi ñëwoon na fii nit ñi ziare mu dagg ziar bi ndax julli jot na ñu dem treize àggale ko fa taalibe yu ci ëpp xawoon leen mu xawoon leen a yëngal ba tax ñoo nañu ko sëñ Touba ñaan googu ñu sëñ Mourtala ñaanaloon nag moom Xaadim Rasuul moo andi lii tey fii moo ko inauguré waaw ah, bi mu ko inauguré it daanaka gunge nañu ab diir ba muy ba muy làqu kon loolu mooy li nga xam ne ci wàllu taarixu kër gi moom noonu ci mën wax jamono ji ñu toll kon jërëjëf voilà man maay Bara Fall di jëwriñu daayira bi di coordinateur xidmatul xadim ah, di coordinateur Côte d'Ivoire xidma bi nga xam ne sëñ Magumba moo ko teg ci suñu loxo kon loolu mooy jëriñ yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. jërëjëf sëriñ Baara Fall jëwrinu Touba Adjamé kàddu yi wax dëgg yàlla leer na am na solo waaye ñu jégglu bu baax waroon na jiital ci suñuy nuyoo suñu xalifa sëriñ Aliou Thiamé ndax kat taaw baay moom mooy ab sëriñ di xalifa di ko ñaanal suñu boroom dëgëral ko su ko defee rek euh, ginnaaw comme ni leen ko waxee woon ku ci nekk bu ñu sañoon yëkkati kàddu jox la waaye ñi wax yóbbaale nañ ñëpp ginnaaw bi Serigne Bara waxee ba pare ñu fas yéene jël kàddu gi jox ko jëwriñ suñub Serigne Serigne Abdou Lahad Boussa bokk ci njabootuk Serigne Thierno Boussa Serigne Thierno Boussa bokk ci njabootuk Serigne Afia Serigne Afia bokk ci njabootuk Serigne Mousso bi kon nag loolu nekk lu am solo sëñ Musoobe yaakaar naa ci histoire yoonu murit jumaa ji ku ko dégg buñ ne laa sëriñ Abdoulaat Bousso mi moo yor wàllu culture ci jumaa ji loolu lu mën a nekk lay doon ndax keroog bi nga xamante ni jumaa ji taxaw nañ ci pare ñu war a sàkku xibla bi moom moo ko sàkku nasaraan yi sax biñ ñëwee xool ko dañoo laaj kan moo natt li nga xam ne ñoom seenum natt sax natt bi sëñ Moussa wi natt moo gën a doy sëñ Mbàkke bu waa sëñ bu Buso nga xam ne doomu sëñ Moussa bi la natt bi mu natt tubaab bi wax nañ ni ñoom buñ nattoon natt bi mooy gën a jub kon nag ab sëtam moo toog fii ñu fas yéene ko jox kàddu gi ci jumaa yi ci jàkkay Touba Adjamé kon sëñ Abdoulaat bisimilah xam naa ni fi ngeen jaar yëpp bari na te sëriñ bi ni daan def bu mosaana tukki bind yu bari yum daan def da daan nett li nga xamante ni moom la doon jànkonteel yéen nag bi ngeen jugee ak léegi ak bi ngeen duggee Abidjan ak léegi li nga xamante ni maanaam gis ngeen ko fi te mu ay tawféex incha allah ñu jox la kàddu gi nga mën koo wax ñëpp mën cee jariñu bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi fi di nuyu di leen siyaara di leen balo àq di balu àq ñëpp di nuyu mbokk yi ñuy seetaan tamit ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi te di ko jaare ci seen Moukhaddamatoul Khidma TV di seen de grande mosquée de di jiital ci nuyoo bi it Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ñu am mbégte lool teew fii ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ànd ak sëñ Abdul Xaadir Bousso ak sëñ Mouhamed Ngom mi ñu àndal teew fi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo jël lu aju ci jumaa ji ak li ci aju ak yeneen mbir yu xam ne ci yoon wi la aju dénk ko Muxaddamatul Xidma te lépp loo xam ne daayira bi mi ngi koy def di ko dox amut lenn loo xam ne dana danañ ko ko umpale bala ñoo def dara ci ndigalam lañ koy defe di leen nuyu ci turu Serigne Afia Bousso imaam mi nga xam ne mooy njiitul Muxaddamatul Xidma ak mboolem membre yi di am mbégte bu baax a baax ci fekk fi kilifa yi ñu fi fekk fii ci daayira Touba Adjamé ak kàddu yu rafet yu am solo yi nga xam ne wax nañ ko ak liggéey bi fiñ ko jëlee ak fiñ ko teg ak fiñ ko jëmee muy lu am am solo kon ñi ngi jiital ci nuyoo bi fii ci jataay bi sëriñ Cheikhouna Mbacké euh, moom sëriñ Cheikh Mor euh, di sëtu sëriñ moor Penda sëriñ Mor Penda nag ci kilifa yu mag yi la bokkoon yu njëkk a topp sëriñ bi taw feex la ci ñun ndax moom ak sunu maam sëriñ Afia sëriñ Afia Bousso mi nga tudd léegi sëriñ Xaarim ñoom ñaar ñoo bokkoondoo woon ànd sëriñ bi bi mu jógee Mbàkke sanc Daaru Salaam sanc Tuuba sëriñ bi di leen tërbiye ñoo ànd tamit ñoo sëriñ bi yóbbaale na leen Mbàkke bari ba bàyyee leen maam Thierno bi mu dem ci géej gi ñaar ñooñu ñoo njëkk a yëkkatil xasida sëriñ Tuuba di topp ci ginnaawam du sikar ba mujj ñuy yëkkati xasida muy sëñ Mor Penda ak sëñ Afe ak sëñ Mor Kuna Mbàkke moom maam borom Saam Eh, sëñ Mor Kuna Mbàkke ak sëñ Mor Busa mbakke moom bam borom kon loolu it suñ fi fekkee tamit sëriñ Saaliwu Mbàkke moom sëñ Maam Mor Pakala moom sëñ Mor Soxna moom Maam Mor Jaara loolu it feex lay doon day mel ne eh, listixaar gu gu nangu lay doon ndax sunu maam sëriñ Afiya tamit taaw Maam moor Jaara la sëñ Tubaa njëkk a santaane ñu jox ko ko muy soxna Fatikan yi gannaaw maamam la magalug soxna Fat Jég yi jàll sax moom lañ ko tudde woon kon ñu ngi leen di nuyu euh, ni nga wax léegi sëñ ci wàllu taxawaayu diine sëñ Seexuna euh, ñun ñi nga xam ne euh, ñun ñi fi nekk te miin Tuubaa xam nañ wàllu googu niñ ñu leen suñ Tuubaa jagleele alquranul karim ñu ñu ci ñu ci ràññiku ak ak jub ak diine maanaam alquran ak jub ak tegu ci siraatal mustaqim njabootu sëñ moor Penda ràññee nañ leen ci loolu waaw naay bi naafila gi sax moom laa xam sëñ Abdou Mbacke laa xam mbokkam moo xam ne Cheikh moom la faloon naay mu doon naay bi sëriñ Gédé Mbacke mi daan naafila te loolu kon man alxuraan koy teg tegtale kon ñi ngi koy beral nuyoo bu baax di ko sant ci taxawaay bi mi taxaw ci wàllu diine ji fii ànd ko ak euh, naayba moom it di imaam Serigne Issa Ndiaye mi nga xam ne mooy imaam ji fi sax a su ñëwee di ko jàppale ci liggéey boobu li tax ñu ñu taxaw ci moom nag ni ko waxee léegi nit ku nekk la muy yëngu kam fekk mu yëngu ca loola maanaam segam ci jumaa lañ jóge ñëw ci jumaa dañuy taxaw lu yàgg ci mbiri jumaa dañ ci dañ ciy sawar te loolu moo tax ñu def taxaw taxaw seetlu boobu ci moom kon nu yàlla ko yàlla kàttanal waaye yéen ñaam initiative bi tamit am gis-gisu seet ku mel noonu ngeen fexe ba ni ni ñuy dundee lislaam ci Tuubaa ñu koy dundee fii loolu it gis-gis bu kawe la loolu it ñu ngi leen ci sant di leen gërëm nuyu bu baax a baax sëriñ ma fari Ndiaye sëriñ ma fari Ndiaye moom it ñi ngi xamee ci mu gis liggéey bi sëriñ bii di Muxaddamatul Xidma xam ne daayira bi wax dëgg ci côté Afrique ñu bari xamuñ ko woon tey ñun doxuñ jëm fi ñu ngi doog a yëkkati suñu tànk ñëw biñ tàmbalee film bi rek lañ doog a ñëw ci wet yi ci Afrique muy Gabon muy muy dëkk yi xëy na danañ tukki ci dëkk yu réew yu bari waaye Europe lañ gën a jëm ak Amérique ak yu demee ak yu demee noonu wala ak ci fu mel ne ay réew yi ci des réew yi ay naar yeeg yooyu moom nag sagam yàlla doxal na mu doon dem ci dëkk yu bëri di fa wane liggéeyu daayira ba dëkk yi ciy jàpp fi mu nekk nii ci ci ci loxoom la jaar moo xam Mali moo xam Côte d'Ivoire moo xam Ghana moo xam Togo moo xam Gabon ba ci Cameroun yooyu yëpp ci loxoom la jaar. kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm xëy na bu ñëwee ci leeral liggéeyu daayira bi danañ ci gën a ñëw ci nuyu président fédération xidmatul xadim euh, sëriñ Baara Fall di jëwri ni tamit daayira Touba ajame ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaan di nuyu bu baax a baax sëriñ Mamour Tall ak sëriñ Xaadim Thiam mi nga xam ne mooy président fédération euh, Darou Moussi sëriñ Demba fay mi nga xam ne mooy jëwriñ xidmatul xadim bu Touba Adjamé euh, sëriñ xaadim seen mi nga xam ne moo jiite daayira xasida yi ñu ngi koy nuyu baax sëriñ Abdou Baaxe Mbay mi président commission organisation imaam sëriñ Issa Ndiaye wax naa ko léegi ba ci porte parole sëriñ xaadim Thiam mi nga xam ne moo doon séddale kàddu yi léegi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu su kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu àndal di sëriñ Aliou Thiam mi nga xam ne ak sëñ Sadex Kan nga xam ne démb ñu teeru ba ba léegi ñu ñuy accompagner ci liggéey bi waaye nuyoo yëpp nag ma wax maa ngi koy teg ci loxol Alhaji Makumba Caam mi nga xam ne mooy jëwriñu Xaadim Rasul fii ci Touba Côte d'Ivoire bi nga xamee nag ñu ngi waajal yoon wi kat euh, diisoo ci ak kilifa yi ñu suñuy kilifa woo dem ci seex seex Murtada mu seex Abdul Ahad mu yëkkati téléphone am boole ñu ak Alhaji Makumba Caam boobaak léegi ñuy déggante ba niñ accès fi li li li ñu sëñ Mourtala waxoon mu wax ñu ko ba léegi wax dëgg lu kawe njort lañ ci gis ak xër goo xam ne gis nañ ne sunu bokki taalibe yi nekk fii xër nañ ko ci sëriñ bi ak liggéeyal yàlla kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm xëy na nag eh, jotaay bi yàgg na kon dañuy yëkkati suñuy kàddu rek jëmee ko ci ñaari anam bi ci njëkk mooy liggéey bi nga xam ne gis nañ ko fii ci Côte d'Ivoire ndax su fekkee ne depuis 1949 wala 48 wala 46 ñi ngi ñi ngi am daayira fii ay addee di fi jóge di dem ci liggéey jumaa ji kon ñi am na benn cër boo xam ne Côte waar am nañ ko ci jumaa ji bu rëy am nañ ko tamit ci yoonu murit ngir taxawaay bu yàgg boo xam ne yàgg na fi jàngat biñ ciy def nag mooy sëriñ bi dafay mbir moo xam ne eh, ku ci nekk eh, yàgg ci te yokkatoo ci dafa am lum ci lum ci lum ci dige lu rëy rëy loo xam ne jàngal nañu ko fu nekk di ñu bañ ñuy nekk ci lu baax ba yàgg ci ba miin ko ba tax ñu cay yokkat loolu xëy na dalu leen dalu dalut waa Côte d'Ivoire loolu tamit di jàngat bu bu am solo beneen bi li nga xam ne ñun dañuy dem ci daayira yu bari di ko gis ba man sax bind naa ci bind naa ci téere excisé woon naa tamit e, joxe woon naa xalaat tamit ci Muxaddamatul Xidma ñu def ci benn waxtaan ci koor gi muy aljaaliyatul murida muridiya taxawaayu taalibe Sëñ Tuubaa yi ci bitim réew ñu dem ci kër Sëñ Tuubaa yu bari gis fu bari waaye ni nga ko waxee léegi daf mel ne da ngeen dañu da ngeen a euh, sàqame suñu blanc ci wet googu muy gis giñ gis ne euh, ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi ndénkaane bi ñu Sëriñ Tuubaa joxoon ci bi mi tabax jumaa ji bi mu dajalee kann ku ne ñaar fukki juróom ak juróom-ñett ba noppi dafa defoon benn benn dénkaane wax ne jamono ngi ñëw ci kanam joo xam ne ku la mënal sañal la ku la sañal dina la gàllankoor ci sa diine wala ci sa ngor kon nangeen ngeen liggéey te bu ngeen noppee ngeen nangu koo delloo ci yoonu yàlla sunu maam yi dégg loolu ba toj dëkk yu bari ba boo doon xool ci ci Sénégal li fa yoonu murit ci ay dëkk boo ko ci génnee yaakaar naa li ci des du bari ci des du bari bi wàllu immigration xewee gis nga fii bokk ci fii njëkk a génn waaye loolu da leen a topp fexe ba di amal seen bopp di ko di manal seen bopp di sañal seen bopp yaakaar naa moo indi kër yi yëpp kër Sëriñ Tuubaa yi am yëpp waaye ñu ñu xalaatu tabax jumaa tamit jàngu jullikaay ak ak jàngukaay loolu it dafa dafa dafa dafa dafa dàkk it bëgg-bëggu sëriñ bi bokk ci ay payam tamit nag fay gi ko juma yi ñu ko fayee jumaay Tuubaa ak njaareem moo mooy répété ba ci ba ci barab yi rek muy ñeenti bantam yooyu ñu buddi woon ci ci Mayomba sànni ko ne ko euh, fii julli xewu fi danga bëgg a yàq suñu soldaar yi te booba loola sëñ bi bokk na ci natt bi suñ borom da koo tere bu ko tubaab yi defee dara mu ci am ñëgi-ñëgi xol mu koy metti xam nga lu doy war la waaye jox na ko ndigal ngir mu def tawasul moo tax moo taxoon mu bind xaside googu di xaside garatiitu nga xam ne ñu ngi ko tënkee rabbana axrijna min hadhihi alqaryati zalimi ila axri aaya muy raditu xanil mawla taxaala allazi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba bi mu loo uktub salaatan ma salaamin bi alihi wa asaabihi wajxal bihi masjidi rahba su borom may ko jumaay Tuuba ak la moo répété wu ci jumaay yi ba léegi nii moom la ko suñu borom di faye rek ba yéen a ngi dëggal tamit bayit wi Serigne Touba wax te ñaanoon ko xasida googu làmbar ne la ko taalife muy wal xad karam na li suq dawaaman futuhaatin akunu biha busra liman bi hudal islaami dafa ñaanoon boroom ne ko nag ma may ma am ay futuhaat yu yaatu ci biti yoo xam ne lislaam da ciy bége kon bi futuhaat yi ci la bokk léegi nag futuhaat yi la maanaa jàkka ji ak tabax bi ak kër suñ Tuubaa gi jumtuwaay la léegi nag lay tax euh, mu doon futuxaat yi dëgg-dëgg xam-xam moo koy accompagner ak diine inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa la Sëñ Tuubaa wax damay jihaad waaye ci xam-xam ak ragal yàlla ci lay ci lay jihaad kon loolu gis-gis la boo xam ne dafa mel ne yeex nañ koo gis dañu jàpp ne moom ñun daal ni nga ko waxee léegi ñoo bëgg sëñ bi danañ daje màggal togg def bilan financé lu bari ci xew-xew yi waaye ci wàllu jàngale ak yar dafa mel ne suñuy cotisation wala suñuy addiyee yi ñu dajale amuñ politique gu jëmale ko ci te loolu gàllankoor la boo xam ne dafay topp li sëñ Tuubaa di wax ne wa min makaidil lahinil mujrimi saddul muridina anit taxalum bokk na ci pexe yi ma saytaane di fexeel mooy dëdd gi muy dëddloo taalibe yi ci lu aju ci wàllu xam ak yu demee noonu loolu nag ay pexe saytaane la loolu nag ñun ñoo am responsabilité ci mabbu loolu kon su fekkee ne fii moo njëkk sosu sos ci dayrab yoonu murit njëkk Sëñ Tuubaa njëkk fee am ñu bokk ci ñi njëkk am xalaatu ne gis nañ ne kat ñun ñi war nañoo def taxaw seetlu ngir soppi ni ñuy doxee ba tax ñu ñu samp fi benn semaine culturelle boo xam ne Euh, waa réew mi lañ ko jagleel man mii ñun ñii di mu muxadimatul xidma ak rawdu rayaxiin ak isbu tarxiya bi nga xamee ne président waaw Cheikh Ayma doon doon na ñëw Sénégal ci Touba suñ mu ndoxaa woo nañu lu jiitu ñetti fan jox ndigal suñ kilifa suñu affaire dafa bëgg am gan gum fonk dafa bëgg ñu teeru ko gunge ko ñu ànd ak moom teeru ko dem isbu tarxiya ñu def fa benn Euh, waxtaan yu am solo ànd ak moom yóbbu ko université mu wisit ñu ànd ak moom dem ci sëñ Muntaxa ba noppi sëñ bi ñaanal ñu doog a yeewi bi muy wax loolu ñu ngi toog mu ne wanoon wane woon nañ ma muridis murid muridi Côte d'Ivoire wane woon nañ ma ko noo xam ne su ma ñëwutoon Touba dëgg dëgg dëgg sama xel di ci ubbiku loolu fan ci lan la juddoo ci bi ngeen jëlee mbir mi boole ci xam-xam mooy semaine culturelle bi ngeen organisé bi waa réew mi participer ci kon loolu li nga wax léegi moo walaabul gis nga Italie lu ne dajale nañ ko lu ne def nañ ko Espagne noonu fu ne noonu lu ne def nañ ko tuubaa nag wax dëgg yàlla lañ fa tabax lépp amul benn infrastructure boo xam ne tabax nañ ko Touba te taalibe yi ci bitti ëppale wuñ ci waaye lii tax ñu bàyyi fi loolu ndax ñun gëm nañ Sëñ Touba ba noppi ñoo ko indaale fii lii tax mu des ci réew ma nag muy suñ doom yi fi juddoo am nationalité wala ñu doon ay ivoirien wala ñu doon beneen réew lay tax ñu loola des fi mouridisme mu des fi dañuy fexe ba tabax loo xam ne dañ koy def ci ñoom te loola munta weesu ñu accompagner leen muy étudiants yi nekk ci di di jàng élèves yi universitaires yi ñu fexe ba wut ay centre islamique centre de recherche yoo xam ne euh, bépp fekkee réew mi français moo fi gën a lëng ñu fexe ba téere yi Sëñ Tuubaa yi ci ëpp yiñ traduire ñu fexe ba am ko fii kon man xalaat bi may gën a joxe rek ci ci fi ngeen jëm am na solo waaye na ngeen fexe ba am bibliothèque de recherche centre de recherche boo xam ne bu mag boo xam ne bépp téere boo xam ne dafay jàngale eh, njàngalem lislaam te sëriñ bi taalif ko bépp téere boo xam ne dafay jàngale histoire sëriñ bi ak yi nga xam ne yar lay jàngale muy naxaju wala yi nga xam ne tawxiit lay jàngale muy moo Mawaahibul Quddus ak yooyu nga xam ne addinaa ci nekk ak alaxira maanaam bépp état sax bu ko jël mën na cee jariño loola mooy njariñ li nga xam ne réew mi dañuy jariñoo Sëñ Tuubaa bu wóor a wóor tey dañuy dañ cey jëm loolu nag wax dëgg yéen a ngi dox jëm ci jàpp naa ne e, su fédération bii ngeen taxawal di sot ak résultat bi ngeen am ci jàkka jiñ ñu jóge léegi nga xam ne tabax nañ ko ivoirien di fa jiite ay ivoirien fees fa dell fa lañ jullee timis bi ma agsee eh, imam daawuda ci boppam daf ne ma eh, jiiteel ma ne ko déedéet yow yaay imam bi yaa war a jiite waaye li ma njëkk a wax mooy ci arab la ma ko wax texte bu leer maanaam teraanga dee su ko delloo kon kooku xam na diine kon xam na ne imam ji sax moo war a jiite waaye léeg-léeg nga am koo xam ne tabarruk nga ngay bëgg a def ci moom bu ñëwee nga may ko mu jiite xëy na foofu lañ foofu lay tege kon loola kooku loolu ak dégg diine la kon résultat boobu nag wax dëgg yàlla man dem naa ci réew yu bari waaye nag gisaguma ko gisaguma ko biñ demee Togo nag am na jumaa ju fa nekk joo xam ne ay togale ña ngi fay jiite ay togale ña ngi fay jiite eh, waaye xam naa ne war nañu li leen manqué mooy comme ni imam Daouda mii ni mu am nga xam ne gëstu na sëñ bi ci lenn ci parce que euh, bi mu tàmbali rek dégg naa ko ay ay bayiti sëñ bi lay lay tàmbale tey danay dellu ci sëñ bi lu bari te sëñ bi xam naa ne jeexital na ci moom loolu tamit su gënee gëstu dana am njariñ lool ñu mel noonu loolu nag moom wax dëgg sens la boo xam ne ñun en tant que euh, gis nañ ko ci dëkk bi ci ci jàngat yi nga xam ne am nañ ko ci am na fu foo xam ne daal xëy na lu mat cinquante ans liggéey bi mi ngi fi woon waaye ni ma gisee ñu jëlee ko nii ak ni ngeen ko organiser mën naa jëm foo xam ne fii ak juróomi at échantillon lay doon ci ci ci ci ci addina bi ci addina bi ñu ñu ñëw di jëggaan si lii di ko tisaare loolu nag moom bu amee wax dëgg jàmbaar teg booloo gi la ak jëwrin yi parce que lu ci bëri nag ci liggéey sëñ bi ci bitti euh, léeg-léeg da ci am ñoo xam ne dañuy ñi ca nekk ca bopp ba ñooy gëm ne seen xalaat te jàpp na liggéey bi fii rek la war a yem duñ déglu bu baax a baax ndaw yi wala ñu déglu bu baax boroom xam-xam yi wala ñu reconnaître seeni xalaat wala seeni idée kon tawfeex la ci mag ñi fi jiitu tamit nangu gi nangoo déglu ndaw yi ba weccante ay xalaat ba ba loolu mën a am loolu kon euh, tawfeex la boo xam ne ñu ngi leen ci encouragé bu baax baax di ñaan sun borom it mu jëmee ko kanam parce que foofu nag loolu nag mooy liggéey bi wax dëgg mooy mooy organiser wu ba nga xam ne bu ngeen fa jóge woon dem ñibbi Sénégal tamit mouridisme des fi eh, ivoirien yi dese ko kon loolu moom gis nañ gis nañ ko fii yàlla na ci yàlla gën a yàlla na ko yàlla gën a jëme kanam loolu mooy <clears throat> point bu njëkk bi ñaareelu point bi ci des mooy li nga xam ne ñun moo ñu yëkkati muy topp tànk sëñ bi benn film documentaire la boo xam ne dañ ko tuddee Euh, sur le traces de Seex dañoo gis ne sëriñ bi sëñ Saaliwu Mbàkke euh, yàlla nañu ko yàlla fayal moom moo joxe ndigal ci Muxaddamatul Xidma ñu sos ko 94 dañoo gis ne euh, bi ñu bi ñu organiser di di nos julli ajjuma yi ñu gis nañu bari bu imaam nekkee ci kaw minbar bi buy buy ñaan buy xutba dañ naan amiin te fekk da leen di waar ñu dem wax ko sëñ Saliou ne ko bu ñu amoon ndigal day ci ñuy def ab bayaan maanaam waxtaanu wolof woo xam ne day jiitu ndax gis nañ ne ñu bëri bu bu ñu leen di waar dañ naan amin sëñ bi da cee ree ba ba ba sonn ci loolu. daan nañu am ngeen ndigal ci lépp loo xam ne ca la jóge nañu am ngeen ndigal ci lépp loo xam ne gis ngeen ne lu yaatal diine la lu koy jëme kanam loolu tax nañu am xalaatu renforcer commission culturel bi ba nga xam ne parce que loolu nag daayira yu bëri dañ dañ koy négliger maanaam daanaka séddale jukki alxuraan rek lañ leen di gën a defloo muy muy ñi yor wàllu culture ci daayira yi <laughs> waaye waaye renforcer leen bañ bañ ba ñuy taxawal euh, diine ji di di di taxawal xam-xam dëgg-dëgg day xaw a jafe xay na loolu tamit mooy li nga wax léegi li li jiitu liñ jàpp rek mooy commission organisation euh, léeg-léeg dama koy wax ak bokk commission organisation daal xam naa sëñ bi yor organisation na baal moom mooy gën a am doole ci daayira yi ñaare mais culture tamit buñ ko dooleelee mën naa taw yeneen bànqaas yi ci des yëpp loo tax suñu saali bi mu joxee ndigal nañu lépp luy jëme diine ci kanam wala lu koy tasaare jox naa leen ci ndigal daayira bi gis ngeen ko danay def fanweeri waxtaan ci koor gi ak waajtaayu màggal di bindi ay téere di former jumaa yi ak jàkka yi ci dëkk bi di leen ci nodd ak liqaam ak nan la ñuy xutba nu ñuy bayaane Euh, yooyu yëpp daayira bi da koy taxawee ci wàllu diine ñu gis na nag léegi sëñ bi bind nañ ci moom sëñ mu Mouhamadou Lamine Diop Dagana bind na ci sëriñ Basiiru ak bokk yu bari waaye euh, sëñ Moussa Ka li mu ci wax bari na lool ñu gis na nag ñoon kon génération bu mujj bi nii dëgg-dëgg war nañoo jóg nag sukkandiku ci mbind moom waaye ñu feexe ba fi sëñ bi jaaroon fu nekk ñu jaar fa loolu tax ñu def état bu senegal gépp ba Dakar topp sëñ ba mu dugg ci bato bi dem Gabon dem nañ Libreville dem Mayomba dem Ndiolé dem Lambaréné dem Port-Gentil muy kable Cable-Bissau dëkk yooyu yëpp dem nañ fa mu dese woon ñu diggante bi muy Bénin Togo Dahomey muy Dahomey Togo Grand-Bassam Conakry xëy léegi bu ñëwee bu ñu toppee sëñ ba mu dugg ci bato bi dañu daal dañuy daal di mën a am trace bii kon loolu moo ñu indi fii Côte d'Ivoire ñu ñëw fi su ñëwee nag kon étape boobu danañ ko def waaye tamit sagam ci jumaa ji lañ nekk télévision bu am solo nekk fa ñu bëri di ko suivre war nañoo gëstu tamit euh, nan la mu mu deme fii ak doxinu taalibe yi fii ak dëgg-dëgg seen taxawaay ngir tamit ñu xam taxawaay boobu dafay am solo kon loolu mooy li ñu yëkkati biñ ñëwee ak léegi wax dëgg yàlla ni ngeen ñu dalale accompagner ñu ngir ñu war a def liggéey boobu sant nañ ci bu baax a baax gërëm nañ ci leen ci yàlla fay ponk bi ci mujj nag mooy tàllal leen loxo aussi ci liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma ndax Moukhaddamatoul Khidma fam nekk dafa doon loo xam ne taalibe yëpp a ko bokk muy jumaay Tuubaa amul kenn ci ñun koo xam ne su su tegee ab saagam bu ñibbisee lam gën a yittewoo mooy dem dugg ci jumaa ji siyaare wala nga julli fa ñaar rak suñ Tuubaa tamit bi mu santaanee jumaa ji ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ kon lam ci diggee woon ca ka doon joxe alalam ma nga fa ba léegi muy soo jàppee ci entretien bi wala nga jàpp ci lay tax mu mën a set wala yu demee noonu daayira bi nag moom organiser wu na yor ay membres yu bari kenn ku nekk dana joxe weer lam am maanaam du ci xëy du ci xaar kenn mais dañoo gis tiyaaba yi jëf ci jumaa ji bari moo tax ñu ñu euh, defuñ ci benn campagne nag boo xam ne am na ci ci bitim réew wala dara maanaam dañuy def fuñ dox ba ba jàpp ne war nañ leen caa war nañ leen koo leeral rek ñu leeral leen ko kon sagam ñëw nañ fii te fekk liggéey bi nekk fi am ay bokk taalibe yoo xam ne yéen yéena leen ci jox ndigal ndax bu ci jëwriñ yi joxewul ndigal liggéey bi mën naa bañ a mën naa bañ a dem ay li ñuy gën a bëgg rek mooy comme daayira bi li mu yanu bëri na te am nañ yéene def lu bëri ci yoon wi ndax am nañ capacité bi maanaam su moyens yi dëgg-dëgg amee lu bëree bëri Moukhaddamatoul Khidma mën na koo liggéey ci wàllu diine ak ci wàllu organiser wu ñi ñi suñu borom mi ñu ciy defal feex ci yi ñu sëñ bi denk yëpp moo xam bàq ya la moo xam yu mën a doon kon lay aju ci wàllu koom ma koy ma koy nos kon bokki bi yi nga xam ne ñoo nekk fii sëñ Fër Njaay lim leen léegi muy moo xam sëñ Tuubaa Lo la sëñ Sadeex Kan ak sëñ Baara ak ñi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi fii yéen jëwrin yi tàmbalee ko ci sëñ Alaaji Makumba bu ñu leen dooleelee gën leen a renforcer man naa bañ a sukkandiku sax ci carte yi ñu jaay bu fekkoon ne sax jox nañ leen ndigal ci ñu xam benn période boo xam ne moo xam waajtaayu màggal moo xam koor ñu jox leen ndigal rek ñu mën a laaj addiyee jumaa ji na dëkk yoo xam ne noonu la ñuy def ab lim day daal di daje ñu mën koo indi ci jumaa ji ñu bind leetar mu ñëw ci turu Côte d'Ivoire gépp ni ñu fa defee noonu leen koor loolu loolu loolu jàpp naa rek mooy li gën a gaaw ci mbir mi su leen jëwri nii dooleelee rek eh, dana yomb kon loolu it ñu ngi leen ci tàllal loxo ndax liggéey la boo xam ne ni ma ko waxee ñu nag yéen a ci yam képp da ngeen nekk fii di liggéey Sëriñ Tuubaa ñu nekk waaye léegi nag dafa symboliser yoonu murit nga xam ne taalibe bi yëpp ciy gis seen bopp tey képp koo xam ne gis nga benn image boo xam ne ci luy xotti war ma foofu la ngeen gis ko li ngay njëkk a def mooy woo ku bokk Moukhaddamatoul Khidma mettit lu loolu foofu nag moo tax am na ay caméra caméra surveillance yoo xam ne dañ ko dañ ko faa def am na mbooloo mu fay liggéey moo xam ne sàmm war ma ji dañ leen di fay ak lu ci yu bëree bëri yoo xam ne ci wàllu entretien la moo xam yooyu yëpp li koy doxal am koom la muy budget boo xam ne weer wu jot dafay am loolu moo tax ñu ci ñu koy yaatal ngir bëgg la fa nekk di mën a di mën a symboliser. dëgg la nag bu ñu waxee loolu taxawaay yu aju jumaay Tuubaa am na ñu bëri ñu ñu wax ñu mën a wax ne ana xalifa bi wala dara mais daayira Muxaddamatul Xidma sëñ taxaa daf ko dénk lu aju jumaa ji kon. lépp lu ci aju ci wàllu entretien ak taxawaay ya ca war duñ dem ci sëñ bi di ko ci laaj benn dërëm dañoo jàpp ne ñoo ko war a def loolu nag pour ñu def ko sëñ bi moom yàlla dimbale na ko lu aju jumaa ji mosu cee tàllal loxo benn organisation lépp ci taalibe yi rek la koy la koy delloo loolu moo tax nag ñu nit lu ñuy wax rek ci taalibe yi lañ koy lañ koy delloo te ñoo ci bokk yam Sëñ Tuubaa digg na ci lu rëy rëy rëy wax fir liman banaw binaaha rafi wax fir liman amarahum bihi jami wala wa li jamihi man ahanahum ala binaiha allazi bi fadlika ahtala yi ci sëñ bi digg daal ci ay tiyaaba bari na lool kon ni ngeen ni ngeen di def ci yeneen kii rek ñu boole ko ci matt googu gan cee soññ gan cee renforcer ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fiy liggéey kon daal sëñ sëñ baara ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di am mbégte bu baax a baax daal tey am yaakaar yoo xam ne yàlla na ko yàlla dëggal yàlla ngeen ko wàll tamit yeneen fédération daayira yi nekk ci yenn réew yi ci gis-gis bii ngeen am te yàlla tamit musal ñu euh, gën ñoo boole yaa rabbi ci xalil muridina maha fi hisnika al azini wa samlaj maha barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa na maa laaj benn laaj euh, <coughs> jërëjëf sëñ Abdou Lahad euh, xam naa xaw ma ab suggestion mooy Euh, dañ faa fekkee ñaare ci bàqiya ñu denc ay kilifa euh, ñaari bari bu jullikaay yëpp benn bi nekk ci penku jumaa ji beneen ba nekk bàqiya euh, li nga wax léegi sama sama sama kalaas ñu bari jànguñu ma doon wax ne lan moo tax penku bi ci fi ñuy jullee ñaan yi nga xam ne bu ñuy jullee nit dañ ko koy ñaanal ci am na ñu fer it sax ci xamuñu ko wala am na ñu mën a liir ci leneen xëy na ci mënuñoo liir sa arab maanaam wax ndax mënuñu woon a jël ci devanture bi ñu bind ñaan ki nga xam ne dañ koy ñaanal ki ñuy jullee ñaare boo taxawee jàkkaarloog miir bi nii jullikaay ba nekk bàq ya damay gis na ci ko akbar lañu def ci kanam bi nekk ci penc mi it defuñu fa dara ndax munuñu woon a bind ñaan gi ci kanamu ci miir bi noonu ci kanam nit ñi jàkkaarloo moom léeg-léeg ñu ne bu ngeen xoolee fee ku mën a liir li ñu war a ñaanal kii tëdd bu dee jigéen la wala bu dee góor la buñ ko bindee ci ci wolofal wala ci ci wala ku mën a liir rek ndax man ngaa liir sax ca doo te doo xam ah, la nga war a wax ndax loolu mënuñu ko yokk ci liggéey bi beneen bi mooy ma déggoon fii ci seen organisation corbia yoo xam ne dañuy fexe ba fu waaye jogee te ci biir Sénégal war a jëm si Touba am oto bu jóge Touba dem jëli ko ñëw anarchie bi nga xam ne li ñuy indee koor yi léeg-léeg oto yi ñëw day xaw a yéeme day xaw a doy waar léegi ñoo laaj ndax liggéey boobu yéen a ngi ci wala ndax déggoon nañ ne euh, am na organisation boo xam ne si dañuy fexe am oto yi nekk biir Touba ku am sa koor njaareem wala Thiès nga woote ñoom ñu jël si ko la nga war na luy oto xëy na mën naa gën a wàññiku ca it condition yi mën na gën a muxtaare ndax loolu da ngeen da ngeen caa nekk wala dañ ko déggante noonu ca nekkul lu wér. jërëjëf sëñ sëñ Bara jërëjëf bu dee wàllu organisation armel yu njëkk yi ak bàq ya Daaru Muxaddamatul Xidma mi ngi ci jot ndigal ci euh, deux mille quinze deux mille cinq ci ndigalul Serigne Saliou Mbacke moo jékki-jékki woo ñu ne ñu yëg naa ne am na ku ñu fi indi denc ko te ki ko denc dafa joxe dara rek ñu dencal ko mu nañu léegi digal naa leen képp kuñ fi indi ak fu mu mën a jóge nangeen xam lu ko fi indi fu mu jógee lu ko faat ak mooy kan te booba yëf yi organisé wutoon nii ngeen gisee am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne wax dëgg fa lañ doon wute seen koom bu nit ñëwee sax léeg-léeg mën nañoo njëkkante ngir kii ko war a demee noonu ci loolu la daayira bi taxaw lim njëkke mooy former leen ci wàllu diine gën leen a déglu donte mën nañ ko ñu gën leen a déglu ci nan la ñuy sange neew nu ñuy ñawee nuñ koy wutalee ay yére nu ñuy dencee ak yu demee noonu bañ xam ko ñu jox leen ay bats nopp fixé fa benn tarif boo xam ne onze mille francs la soo ñëwee moom ngay joxe suñ noppee kenn ku nekk sa wàll génn ci nga xam ne amatul kii maa ko kii yeeg wala demee noonu waaye loolu loolu dañ lu ñuy exciser la ba noppi tëral ay laaj yoo xam ne faaw nit ki bala faa dugg dañ ko koy laaj kum mën doon tamit da nga da yor certificat de décès da ko joxe bu dee mort naturelle la chef de quartier bi day bint xam nga loolu lépp nos la loolu ca armeel bi bi bàq ya amee nag ñëwee Sëñ Sidi Muxtaar moom it 2014 euh, le 9 janvier 2014 ci lañ tëj armel yi ubbi armel yi bàq yi suñ Sidi Muxtaar woo ñu dénk ñu ko euh, ñu gis ne kon am na lu ñu rëccoon muy tabax yu bari yi ci armel yi xataloon na kii bi dàq moom li ñu fa njëkk def mooy bu kenn tabax loolu moom sëñ bi dooleel ñu ci bu kenn tabax ñu wutal ko benn logiciel boo xam ne li ñu li ñu daloon fee tamit dañ koy dañ dañ lu ñu dalati fii boo xam ne tey numéro ngay am soo ñëwee boo xamee numéro mbokk mi ngay seet dañ lay mën a wax loo bi mu nekk ak kees gi mu nekk ak fi mu nekk ci saasa kenn du réer amul kenn ku fay dugg organisé wu tey jii su ma duggoon fii ci sama téléphone ci logiciel bi mën na laa wax nombre bi fi mu toll nombre bi ñu ci baqee ci deux mille vingt deux mu jot loolu organisation la kon nosu la nosu nosu nag sëñ Tuubaa boppam moo njëkkoonu nosu moo tax bu may wax ñu naan yoonu murit la fa lax ci déedéet maanaam yoon wi nosu moo ko sos boo demoon njaareem sëñ bi fi mu dëkkoon ay keesam néeg bu nekk la muy soxla dafay nekk ñaqale dafay nekk matt mi mi taal almet gi koy taal téere yi mi bind daaya bu waxtu julli bu ko jotee foofa gaal ga fees dell ki yéréng fa laj ko lañ yami laal yépp nga xam ne fu mu dugg fu nekk la lam soxla bu taalul làmp mën na ko fa kees yëpp dañ ko daa maasale kon loolu noosu sëñ moo ko moo ko njëkk def loolu kon def na bu dee ci wàllu wii nga wax bu dee jullee néew euh, maanaa ñi topp ci ginnaaw néew bi dëgg la ku ci man jullee néew gi nag am na solo jàpp nañ ne comme kanam fi ñu jullee tamit euh, bu dee ci julli bëgguñu lool lool ñu fay bind wala ñu fay def loo xam ne day jax-jaxal nit ki ndax foofa kooku dañ koy layal digganteem ak boroomam maanaam mi ngi mel ni avocat boo xam ne moo taxaw di layal kii ci digganteem ak boroomam yow sunu boroom sa jaam bii kat su fekkee ne def na lii bu ko topp ci mbonam bi def li nangam kon ki nga xam ne ñi nga xam ne munuñ li ñuy jullee néew ñaan guñ man rek allahuma ixfir war warhamha allahuma ixfir lahu warham mën nañ ko waaye exigé wuñ nit ki mu ñi ñi topp ci ginnaaw imam ñu wax jullee gi far force ba tax mu ñuy obligé ñu war koo bind ci miir bi loolu soo soo ko defee ci fiq doo ko mën a layal dëgg dëgg dëgg moo tax te te foofu nag segam ñëpp dañ koy xool di ko roy da ci am yoo xam ne doo ko doo ko mën a doo ko mën a kii loolu loolu loolu moom mooy gàllankoor bi nga xam ne euh, am na ci ci loolu li tax ñu def ko ndax leen lu nekk bu ñu koy def Tuuba euh, dañ leen di roy fu nekk moo tax dañ koy dëppale dañ koy xool méngale ko ak ak kii ba ba mu beneen laaj bi lu mu doonati sax waaw wàllu corbillard yi ngay wax nii moom dayru Moukhaddamatoul Khidma am na ñaari corbillard yu fa nekk yoo xam ne e, fi may wax ak yow nii rek mën naa la wax niñ ko nosee ñaari corbillard nga fa yoo xam ne mi ngi nii morgue bi ci Baqiya maanaam bu dee biir Touba képp ku ñu jëli deux mille francs ngay joxe waaw foo mën a mën a nekk ci Touba waaw bu fekkee ne bu dee baqee lay lay lay doon bu dee dëru minam lay lay jógee bu dee morgu dëru minam nga xam ne ak euh, dëru non dëru minam baqee 4000 bu dee margo bi baqee armeel yu njëkk yi baqee mooy 2000 dëru minam baqee 4000 dërul mën naan mooy fële armeel yi la moom it 4000 dëru salaam 5000 mbakke muy armeel yu mbusoo bee 5000. lu aju ci biir corniche bi moom 4000 lay doon bu dee biir corniche bi 5000 biti corniche bi hôpital yi mooy hôpital yi nekk ci kii bi yëpp bu dee Touba Dakar 70000 loolu mooy tarif yi nga xam ne dañ koy natt xëy na gaaso gaasuwaal lay doon xëy duñ ci jéem a teglu kii loolu moom ma nga fa 24 sur 24 ma nga gaare ci buntu Margo loolu tamit liñ gisoon mooy Touba gis nañ ne oto mburu yeeg sareet yeeg yëpp dañ ciy teg ñi faatu loolu taxoon ñu ñu defoon benn appel lancé ko am ñoo xam ne indi nañ kii jox ko sëñ bi addee sëñ bi joxaat ñu ko dénk ñu ko ñu yor ko li tax ñu def tarif yi nag dafa am ay safoor yu ñu jël di leen fay muy am carburant bu koy doxal kon jaadu bu doon doon loolu bu ñu amoon mooy yi dëgg-dëgg dañuy fay safoor yi muy muy muy jëli ñëpp gratuite waaye jaadu na ñu def ci benn tarif boo xam ne Euh, dana am solo boo tax loolu moom nit ñaa murid yaa ngi koy jëriñoo bu baax a baax a baax bu baax waaw loolu moom <clears throat> am na ñaarang fa xëy na mën naa am bu ko bokk taalibe yi déggee dana dolli ko waaye loolu moom moom moom ma ngay dox. waaw bu buñ nee Dakar xëy na aéroport lañ ci bul waaye loolu teewul tamit ku xam Kaolack ak Ndar fu mu mën a nekk fu mu mën a nekk moom oto yi disponible na par pour jëli leen. waaye xam nga Touba moo ko moo ko gënoon a moo ko gënoon tumuranke ndax léeg-léeg nit na ci kër ñuy fëgg borom oto yeeg kii ñuy jël di leen tëral ci coussin yi oto yeeg wala oto yi mburu yeeg wala sareet yeeg te loolu lépp xam nga wax dëgg yàlla dafa xaw a doy waar loolu moom saafara na moom fi mu nekk nii saafara na yooyu yëpp wax dëgg euh, ci taxawaayu taalibe yi rek la wax dëgg yàlla mm-hmm. Euh, alhamdulilah kon niñ leen ko waxee woon ci commencement bi rek sant yàlla bu baax niñ ko commencé ci bisimilah rahmaani rahim àggaleeg ci alhamdulilah rabbil alamin yaakaar naa ni kàddu yi ñu fi dégg yëpp yaakaar naa dégg nañ ko yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp su ko defee rek mi euh, ko sëriñ bi waxee léegi ci ay leeral ak question yi nga xamante ni laaj nañ ko fi kon nag cant gi ñu ngi koy wax ci ndigalu Serigne baara Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi fii ci Touba Adjamé waaye nag sant gi mi ngi ciy jiital xam naa ci biir waxtaan bi dañ koo fàtte sax waa kër Soxna Jaara yi nga xam ne ñi ngi ci kër gi tey jii waroon nañ fee teew waaye comme niñ ko waxee bu fi jëwriñ teew rek ñëpp teew nañ fi kër gi am na kuréelu Soxna Jaara boo xamante ni fu góor yàlla yi taxaw ñoom taxaw nañ fa lu ñu liggéey rek liggéey nañ lu ko ëpp teg ci loxo jëwriñ kon nag ci turu Serigne Bara ak Serigne Demba Faye ñoo ngi sant waa kër jaar yi su ko defee subaak jàmm incha allah liggéey bi day continuer xam ngeen ni Côte dafa yaatu te sëriñ bi jaar na fi su ko defee danañ ànd def délégation ànd ak sëriñ Abdou bu Bousso ak délégation bi mu àndal télé bi nga xamante ni mooy CMK TV ñëwoon fii ci Côte d'Ivoire danañ àggale liggéey bi foofu incha allah kon nag ñu ngi koy bàyyi bàyyiloo xel ñëpp yaakaar naa loolu mooy kaddu yi bu fekkente ne amul lenn lu ñu fi fàtte di dellu di jiital comme niñ ko waxee woon rek di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou suñ borom yàggal ko fi lool te doolu ko ak wér noonu lañ koy ñaanale sëriñ Amdi Modou Mende Fall yàlla yàggal ko fi lool doolu ko ak wér ak njabootug sëriñ Touba gi yëpp njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu